the launch of our new logo. We have evolved since our incorporation in 1997 and it is time to refresh our new look to reflect who we are today. Before I reveal our new look, however, walk with me while I take you through our journey of the last 25 years. Trust Bank was incorporated on July 3, 1997 and began operations on October 1, 1997. Following the collapse of the parent company of its predecessor, Meridian, the CBG stepped in and recapitalized the bank and held the shares in trust, thus the name Trust Bank. In 1999, So, we remain true to who we have always been. As we look forward to greater achievements, we are rebranding to reflect who we are today and the future that we inspire. Our new logo has been designed to visually demonstrate our Gambian heritage and the sophisticated nature of the bank. We are moving away from the navy and gold-colored parallelogram-shaped logo to our baobab tree with a rising sun in the background. The striking outline of a baobab tree at sunrise is a familiar sight to anyone who has spent time in the Gambia. Our new logo and visual identity are inspired by our core values and spirit of being a pioneer in providing a unique banking experience. It is a completely new look that better matches the transformation we have made as a company. But we remain your trust bank. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to present to you our new logo and corporate identity. Residency Estate is a gated community located in Olyundum, proudly developed by Swami India. Perfect for all looking for a quiet life with luxury amenities within an enclosed setting. When talking about the benefits of living in a gated community, safety and security is top on the list. They allow extra privacy, take away the hustle of unwelcome solicitors, and create a safe haven for children to play in a trusted environment without traffic or speedy vehicles. A great sense of community develops through the meeting at a controlled communal leisure facilities, offering an integrated lifestyle. A green environment and well-managed communal areas are keys to higher home standards, elevated quality of life, and better property value should you consider home reinvestment in the future. Added to all is the location just next to the airport and reconstructed main road, yet tucked in the tranquility of nature. Our purpose is one, your satisfaction. Contact us. Let us help you build your dream home in the Gambia. welcome to this special interview mbokk um, yi tey ñu dalal leen a uh, special interview ci Kër of course Thursday laa dee ñëw nag waaye tey nag dama am gan bi nga xam ne nag jar na ma bàyyi kër ñëw si studio bi uh, suñ ne Dame Mbodj yaakaar na ne gaam bi xam nañ ko uh, Dame Mbodj is a union leader in Senegal he is the head of the teachers union in Senegal of course he is also a politician nekk ci coalition of leaders ñi nga xam ne ñoom ñooy support président Ousmane Sonko of Pastef ah gars yi ñu ex Pastef Uh, Dame welcome to the Gambia. Uh, uh, uh, maa ngi lay sant di la gërëm. Mm. di am mbégte ci ñëw fii kër Fatou pour nga dalal ma fii ñu waxtaane senegal ak li fa xew mais ñu waxtaane rek li xew ci sous-région bi yëpp. Mm-hmm. ndaxte ñun dañu gëm ni dañu gëm Afrique ñun gëmuñu ay biir réew ak bii réew Afrique ci boppam lañ bëgg mu développe ci boor bu mu mën a féete. képp ku nekk africain nga gis sa bopp ci ni nga xam ni moom la réew mi di doxee réew bi nga bokk mais ñun ñëpp ñoo bokk ay mbokk lañu kon soo ma dalalee fii ci Kër faatu dina am mbégte euh, wax ak sama mbokk Gambiens yëpp euh, nga xam ni ñun ak euh, Sénégal ak Gambie benn réew la tubaab bi rek ñoo doon séparé mm. mais ñun populations yi ñun séparé wuñu parce que dañu seq di sëyante suñu biir. Eh, nga dëkk Gambie dem jànge Sénégal wala nga nekk Sénégal ñëw jànge Gambie di fa liggéeyee wala ngay liggéey Sénégal ñu duggalante ñun population si donc loolu moo tax eh, bi yoon mooy sama ñeenteelu ñëw Gambie eh, Gambia man dama ko bëgg ndaxte réew bu am dal réew boo xam nit ñi dañu dañu am hospitality e dañuy bëgg toujours képp koo xam ne ñëw nga fi ñu que yu make yourself at home. Euh, loolu moo tax euh, maa ngi kontaan di leen nuyu ñoon ñëpp ci ku ci nekk ci tur euh, turam ak santam di la gërëm yow Fatou Touré ci sa liggéey di la gërëm parce que ku am taxawaay nga nekk ku Gambiens yëpp ràññee Sénégal également ñu ràññee la ci sa liggéey bu rafet bi ngay def te loolu rek la ñuy xaar ci ñi nga xam ni dañu dëkk ci continent bi parce que dañu bëgg ñu am continent bu développé donc ñu ngi lay gën a ñaax parce que li ngay def yombul. am na ñu bëri ñu koy def ci réew yu bëri mais ñu koy def yëpp nit ñi dañ leen di bëgg wante ñiy jiite réew yi des fois dañ leen di xaw a fakastal hmm. euh, te pourtant ñooñu sax ñoo leen waroon jàppale parce que ki lay won li nga xam ne baaxul ci sa liggéey kooku man dama jàpp ne kooku moo lay dimbali parce que ki lay jay du la jox dara du la andil dara lu bees loolu moo tax yow nit ñi bëgg nañ la ndax sa taxawaay ñu ngi lay sant di la gërëm mais nga may ma rek ma nuyu tamit ñi nga ñoo ma dalal ndaxte ñëw ma Gambia ci mbirum politique am ah. am not here for politics. Ah, dama ñëw pour noppalu. Hmm. Ah, parce que temps yi dama xaw a sonn ci li liggéey bi may def may waajal tamit liggéey bu am solo ma ne naa ñëw Gambie ma ñëw noppalu tuuti bi ma ñëwee nag naturellement su ma nit ñi déggee Gambia dañuy dañuy kontaan. ñu dalal ma nag hmm. ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite fii Pastef ndax xam sama cofeel ci seen leader naam bokkum ak ñoom parti Ah, we are not in the same political party wante ñoom ñëpp xam nañ sama taxawaay parce que man dëgg rek moo ma ñor hmm. euh, donc fokk ma gërëm ki nga xam ni moom moo koy jiite muy euh, coordinateur bi mu nga xam ne mu ngi tudd Frédéric Diédhiou euh, rafetu naa taxawaayam moom ak ki nga xam ne moo topp ci moom nga xam ne mi ngi tudd Yacine Diagne moom tamit Yacine Dieng Yacine Dieng également daf may jàppale Euh, bu baax ci lépp lu may def def koy ñor di ma seetaan nekk ci sama followers yi mm-hmm. euh, ñu dalal ma dal bu mucc ayib euh, bi ma bëggee génn ci sama ci sama pocket sax jënd flight ticket bi mm-hmm. ñoom dañu bañ ne ma doo ko def ñun ñooy jënd mm-hmm. kon loolu mun ma leen bañ gërëm di gërëm également ki nga xam ni mooy secrétaire général bi nga xam ne mooy monsieur ñaa nga xam ne teacher la moom tamit ñaa maa ngi koy gërëm ndax taxawaay bi ak yombalal bi di nuyu également Jamilatu nga xam ne mooy jiite jigéen ñi fii ci Gambia euh, di nuyu également Duudu mi nga xam mooy yore xaalis bi mm-hmm. euh, te xam naa ne yërëmul poosam parce que ñu ngi ma wax dëgg yàlla dalal dalal bu baax di nuyu également King King aussi dama koy beral loxo mm-hmm. ndaxte King euh, dafa bëgg Afrique King wax dëgg yàlla moom taxawaayam ñëpp rafetlu nañ ko Sénégal nit ñi xam nañ ko mm-hmm. xam nañ ko fii tamit ci Gambia moom King wax dëgg yàlla yore benn kuréel boo xam ne day jàppale Ousmane Sonko créer benn movement uh, he created he set up a movement for Sonko 2024 uh, hmm. loolu aussi lu am solo la ndaxte comme niñ ko waxee Sénégal ak Gambia benn réew lañ uh, di nuyu nag ñeneen ñi bokk ci waa Pastef bu Gambia yëpp parce que mënuma lim ñëpp parce que ma ñëw toog jël lim ñëpp parce que ñoom macha allah ñi ciy liggéey dañu bëri kilifa yi ci bokk góor ak jigéen dañu xaw a sakkan kon ma lim ñooñu rek ñu yóbbaale ñu ci des. di leen wax ne daal rafet nañ seen liggéey et li ñuy def am na solo pour Afrique am na solo pour Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la ñuy jàppale parce que li ñu bëgg rek mooy sunu réew yi euh, développe et que wax dëgg yàlla ñu am démocratie ci sunu can sunu sunu countries yëpp euh, loolu rek lañ bëgg bëgguñu leneen kon maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan leen wax ni am naa mbégte ñëw fii ci Gambia démb laa fi ñëw ba wax dëgg yàlla. su ma sañoon sax ñu yokk stay bi ndaxte neex na lool neex na lool <laughs> <laughs> mais Gambien itam ah, di la wax rek ne ñuy seetaan gis naa kenn Amadou Thioune mu ne daam thank you for fighting for Ousmane Sonko dafa mel ni Gambien yi ah, ak Sénégambien yi africain yi yëpp gis nañ taxawaay bi nga jël di défendre cause Ousmane Sonko en tant que yow sa bop nga nek candidat mais yaa ngi bari you know you're fighting more for Ousmane uh, Sonko human rights am um, lan motax damboj Dame uh, Mbodj mu jël yoon boobu ñu doore foofu waaw jërëjëf Fatou xam nga lu tax ma jël yoon boobu man dama japp ni démocratie uh, ku nek nga am sañ-sañ nga samp sa ndënd comme niko olof yi di waxee mhm. ñu bayyi képp ko xamni ci réew mi nga dëkk nga am nationality, ci réew mi ñu bayyi la nga mëna Euh, samp seen dënd wax ne dama bëgg a jiite réew mi man dama ci am sañ-sañ Ousmane Sonko def ci am sañ-sañ euh, Amadou Ba bi nga xam ne moom la Macky Sall wax ne mooy candidat moom tam mu am si sañ-sañ képp koo xam ne dëkk nga ci réew mi rek danga am sañ-sañ nga ñëw wax ni man lii laa xalaat ne suñ ma falee bëgg naa ko def pour sama réew nañ ma jox ma jiite kon loolu démocratie moo ko mayee kon li ma li ma mënoon nangu mooy même man su ma nekkee candidat di run for next elections euh, man mënu nangu ñu am koo xam ni dara mënul tee mu nekk ci candidat pour nekk ci ñiy xëccoo pour jiite réew mi euh, euh, since 2021 ñëpp gis li nga xam moo si xew ci ay mbiram ñu koy jaay doole di ko bundu xataal di ko ca sax à la limite quoi bëgguñu moom mu bokk léegi nag ñun ñu ni mais ñun bëgg bokk am sañ-sañ pour bokk warul tax ñuy gis koo xam dañ koy jaay doole ñu koy ragal parce que man euh, Ousmane Sonko waruma ko ragal parce que su fekkente ni man dama bëgg a jiite réew mi te ki ki ñu yaakaar ne moo ëpp doole man munuma ma win élections yi su ci bokkee kon man su ma ci bokkee bu ma winee kon win bi du neex bala muy neex ma ñëpp bokk ñu seet Sénégalese people yi ñoom kan lañ xalaat ne ci ñun ñuy xëccoo yëpp. Mm-hmm. kan moo leen gënal ñu fal ko loolu mooy démocratie loolu moo am ci réew yëpp mais su fekkente ne ki jiite réew mi moom dafa tab ki nga xam ne moom la bëgg mu wuutu ko mu tudd Amadou Ba. mu taxaw ni moom buggul ki nga xam ni dafa nar a euh, win moom mu mu jàll léegi muy fexe pour def lépp pour fakastal ko ba du jàll mm-hmm. léegi nag am ay leaders yoo xam ne ñoom dañuy xëccoo réew mi comme Ousmane Sonko ba noppi bugguñu Ousmane Sonko nekk candidat ñoom kon dañuy ànd ak li nguur gi bëgg moo tax man di xëccoo du tee képp ku ñuy jaay doole wax ne yow mënoo bokk damay taxaw ni danga nga war a bokk parce que biñ fi bëgg a jaay doole Mimi Touré nekk jigéen boo xam ci ñoom la bokkoon. Mhm. bi mu génnee euh, xëy na fesul comme ni mel ak Ousmane Sonko parce que Mimi Touré ñoom dañ ko gaaw bàyyi. jaay nañ ko fi tuuti doole bi mu génnee ni candidate la mais après dañ ko bàyyi mais bin ko bi mu génnee ñu koy jaay doole man bokk naa ci ñi taxaw ne amuñu droit jaay ko doole ci ñoom la bokkoon dem na ba gis ni euh, Macky Sall warul am ñetteelu ay euh, certain bi moom da àndu ci mu taxaw ni moom day nekk candidate mais ñoom ñu koy. bundo xataal man dama taxaw jàppale ko wax fépp ne Mimi Touré kenn war ko tere mu bokk noonu la mel nag mais Ousmane Sonko laa gën a fes ndaxte Ousmane Sonko nin koy jaayee doole amul benn kilifa buñ ko jaayee doole Sénégal loolu moo tax ñu taxaw ci wetam euh, ni nañ ko bàyyi mu nekk candidat wala lu tax lu tax nga foog ne euh, nguur gi bëggut Ousmane Sonko taxaw ñun Gambie fii Sénégal is a model of democracy pour ñun euh, xam nga ne ñun 22 years dañ nekkoon ci dictatorship euh, te bu ñu amee changement in 2016 suñ président bi fi nekkoon bu wutoon a dem Sénégal dafa am taxawaay bi mu taxawoon pour Gambie mu am démocratie pour ñu am the will of the people ñu ñu taxawal ko Sénégal nekkut si situation boobu because élection ñëwagut mais ñu ngi mel ni Euh, ñu ngi dem ci lu mel noonu because at the end of the day su dee candidate boo xam ne am na taxawaay nit ñi bugga nañ ko bugguloo mu bokk ci élection kon yaa ngi ayee di askan pour ñu mun a uh, show their love for whoever they want to vote for lan moo xew si démocratie senegal lu tax ñu egg fi ñu toll nii. waaw fi ñu toll nii Sénégal mosu fa toll mosuñu am président boo xam ne dafay jaay doole nii daan na jaay doole sax parce que xamoon nañ président Diouf. Euh, muy jàppante ak président Wade. Euh, boobu Wade mi ngi nekk euh, the most outstanding political leader ci Sénégal nga xam moom la nit ñi gënoon xam ñëpp xam ne bu demee élection moom moo war moom moo moom mooy moom mooy jël ndam li Abdou Diouf di ko jaay doole wante Abdou Diouf lu mu jaay doole jaay doole Abdoulaye Wade boobu mi ngi nekk opposition bi nga xam si mu ëppoon doole Sénégal mais daf ko doon bàyyi élection bu am day bokk. Euh, mësul ko tere mu bokk Ablaye Wade boobu ñun ñu nekk ay xale. Mm. dañ ko dañ ko faawoon ñun ay fans Ablaye Wade lañu woon boobu ñun ñëpp ñu nekk ay étudiants ak ay élèves ñu bëgg Ablaye Wade euh, Abdou Diouf di xeex ak ñun euh, wax ni ñun kenn yaruñu <laughs> boobu daf doon wax ni ñun xale yi yi topp ci Ablaye Wade kenn yaruñu ndaxte dañu dañu xamadi loolu la doon wax ci ay ay ay ay ay speech yu mu doon am jëmale ko ci askan wi wante teewul ñun dañ doon taxaw nekk ci ginnaaw Ablaye Wade ne dañ ko bëgg a fal. mais bu élection daan am doon nañ am sax ay élection yoo xam dañ ko doon rig euh, ñu am ay jafe-jafe yu am ci élection yi wante euh, dañ doon toujours bàyyi ab Ablaye Wade mu bokk si élection bi. Mhm. léegi ñu dem ba Ablaye Wade euh, jël ndam li de 2000. waa léegi boobu ba léegi am na ay coow yu am ci politique ci Sénégal mais li ñu xew li xew nii bees la. Mhm. maanaam xool benn political leader wax ni fi mu jëm dafa nar a jël ndam li léegi moom du bokk. loolu mooy jafe-jafe bi parce que euh, Abdou Diouf bi muy waaj ñàkk nguur gi am na ñu ko defal ay ay ay ay ay ay son surveys mhm. ci surveys yi ñu ne ko euh, ah, yow nguur gi mi ngi génn sa loxo euh, wante teewul Abdou Diouf dafa ñeme dem élection ak ak Ablaye mais wante Macky Sall li nit ñu bëri xamul mooy li tax mu ragal nii Sonko mooy bi ñu génnee ci élection bu 2019 bi dafa am ay survey yoo xam si euh, ay ay ay cabinet yu am doole ci àdduna bi ñoo ko def mhm. euh, yenn yi sax ñi ngi ñi ngi Europe mhm. ñu wax ni bu ñu demaatee élection ak euh, ni nga xam ni moom la Sonko taxawee moom moo nar a jël ndam li léegi nag dëpp bi bi loolu amee ba léegi lu nekk ñi nga koy tuumaal Euh, ñu koy wax ni moom rapiste la moom euh, rebelle la même lii la lii la salafiste moom ay jabaram dañuy muuru euh, lu nekk ñu tuumaal ko ko dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko there are lobbies behind him loolu lépp ñu koy wax boobu liñ bëggoon mooy yàq deram pour xool ndax nit ñi daañ ko bàyyi hmm. waaye luñ koy gën a yàq deram nit ñi di ko gën a bëgg léegi nag ñu ni kon léegi yàq nañ deram ba sonn lu nekk jiiñ nañ ko ko parce que gulet ñu jiiñ nit ci réewam ne ko da nga sàkku jigéen jaay ko doole ba lépp nit ñi gën la bëgg. parce que bërki démb bu ñu xoolee France kii naroon win election bi moom Dominique Strauss-Kahn biñ ko jiiñee loolu ca euh, euh, États-Unis ca euh, States. biñ demee ba election bi jege mais France French people yëpp dañ ko bàyyi. ba tax mujjul nekk candidate. Sénégal nag ñu gis ni din nañ ko Ousmane Sonko mais tey la ko nit ñi gën a bëgg. mais lu tax bëggeel boobu noonu Sénégal Sénégalese people def Ousmane Sonko lan mooy waral lan moo waral loolu. wa Ousmane Sonko xam luñ ko tuumal dafa bari ah. waaw ah, gis nañ ne sëriñ yi sax da ngay gis ñuy wax ne um, si barke sëriñ euh, si Sonko lu nekk like He is just non-compatible. Munoo ko compare ak anybody right now in Sénégal lu tax nga foog ne with all of these accusations salafist la uh, rapist la um, rebel la and all of these things but still the Senegalese people especially the young people ñu ngi ko buggal lan moo waral lool. waaw li ko waral mooy Ousmane daf leen wax loolu xam ni dégg political leader wax leen ko. Mm. xam nga Ousmane li euh, succeed mooy. dafa fexe ba sénégalais yi doon nelaw ñu yeewu ndaxte Afrique li ñu yàgg a naxe mooy population dañuy nelaw ñi jiite dañuy am euh, benn gàpp buy am seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom lañuy jiite ba nga xam ne ñi ñuy jiite ñoom dañuy nekk rek di dox seen euh, activités dem liggéey yi ñëw dem wuti euh, lu ñu dundalee seen njaboot wante lii xew ci àdduna bi ak lii xew ci seen réew sax duñ ko xam duñu xam lan moom lan la seen réew am ci alal mhm. ci xaalis lan lañ am ci euh, ci seen géej bi lan moo am ci seen suuf lan mooy am ci li nga xam ne moom moo fa am ci koom-koom ci euh, ci ci lépp lu jëm ci lu mën a euh, yokk nit ñi léegi nag Ousmane Sonko loolu la ñëw leeral ko parce que loolu daaw ñu bëgg mu leer mhm. léegi nag lu lan mooy lu bees mooy Ousmane Sonko for the first time Sénégal ñu am leader bu bokkul ci système bi. Hmm. parce que dañu we have a political system uh, deeply rooted in in uh, different countries du rek Sénégal. réew boo yem boo dem. dafa am benn. political class benn benn dafa am benn political class boo xam ni. Mm-hmm. ñoom rek ñoo xam li. you have to be ñoom ñooy falu seen biir. ñuy falante seen biir di xeexante seen biir wante suñu amee ku ci bokkul ku nar a ñëw jël mbir mi ñoom ñëpp dañuy ànd xeex ko mm-hmm. maanaam il faut pour nga xam. li nga xam ne moo tax Ousmane Sonko sonn amul benn political leader bu mus a am jafe-jafe bi Ousmane Sonko am pour nga xam loolu il faut nga gis ni Ousmane Sonko gulet for the first time ñu am koo xam ni euh, bi Sénégal jëlee indépendance ak léegi amul benn yoon. amoon na ñu ñu nekkoon ci biir avant ak euh, euh, ñoo xam ne jéemoon nañ xeex système bi. Mm. système bi boo koy wax da nga ciy am ay political leaders da nga ciy am ay marabouts comme on appelle les religious leaders da nga ciy am ay ay ay ay ay ay ay presse euh, nekk ci réew mi. ak ay ñoo xam ni ay ay ay ay kilifa yu mag lañ ci ci boor boo leen mun a jëlee léegi ñoom ñooñu dañuy nekk ci système bi di dund ci système bi. lu ñu bëgg système bi di leen ko defal. Hmm. léegi mais système bi bu fekkee kenn ci ñoom moo falu rek ñoom seen affaire baax na parce que ñoom ñëpp ñoo bokk wante nag guleet ñoo am koo xam ne bokkul ci système bi bokkul ni muy wax ak li waa système bi di wax léegi kon moo tax coow li bëree na mu bëree nii guleet mu àgg foofu parce que 2000 euh, 1962 euh, amoon na Sénégal benn euh, political leader bu nekkoon ci biir système bi wante moom mu ne àndul ak li système bi doon dox. waaye moom ci seen biir la nekkoon. mi ngi tuddoon Mamadou Dia. ñu xeex ko jiñ ko ni dafa bëggoon euh, andi foofu benn military coup euh, et que euh, donc dañ koy daf dañ dañ koy dañ koy dañ koy yóbbu trial ñu yóbbu ko bi ko yóbbu ñu tëj ko fukki at ak ak benn fukki at ak ñaar parce que fukki at ak ñaareel bi la génn. léegi bi mu génnee moom ci boppam mu ne bi mu génnee sax jaaxle na parce que dafa génn gis ne Sénégal yokkuwul te moom la mu bëggoon mooy la doon xalaat mooy li Sonko di wax tey mooy Sénégal moom boppam dafa gis booba bi nu jëlee indépendance 1960 euh, mm-hmm. mu gis ni senegal dafa jël indépendance ci wax wante si jëf ba léegi France moom mooy dogal Sénégal mu ne nag moom loolu d'accordu ci he doesn't agree with that system. Mm-hmm. dafa bëgg léegi ñu tegaat lépp ci yoon. France ñu ñu def coopération ak Sénégal wante France bàyyi Sénégal mu doxalal demal boppam léegi nag ñu ne ah bon euh, kii dafa bëgg andiloo yees léegi nag ñu koy xeex ba tëj ko kaso am keneen koo xam jógoon na taxaw mu ngi tudd Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. moom lañ moom lañ Euh, euh, Dakar University nga xam ne kilifa gu mag la woon nga xam ne Afrique fépp dañ ko doon déglu ci xam-xamam ñu koy woo mhm. ci universities yu bari ci àdduna bi mu nekkoon ku bëri bëri xam-xam ba bokk na ci tey boo doon lim Afrique ñi gën a am xam-xam ci ñi andi research andi ci lu bees ci fan la doomu aadama juddoo fu mu sosoo ak fan la jaar yooyu yëpp euh, moom bokk na ci ñi nga xam moo ci gën a xarañ te lim bindoon ba léegi kenn mënu ko teggi kon kooku dañ ko xeex moom tamit ndaxte amul woon li li li Sonko li ma laaj sànq li Sonko am lu Cheikh Anta Diop amul woon mooy Cheikh Anta Diop xëy na sax moo ëppoon xam Sonko. Mhm. wante Sonko li mu am ba taal xelu nit ñi. ba leeral nit ñi nga xam ñooy population si li nga xam ni moom mooy moom mooy li nga xam moom moo war a nekk seen taxawaay ak seen njariñ ci yëf yi soppeeku loolu la Cheikh Anta Diop amul woon Cheikh Anta Diop mënul woon ci ci xarañteem. Mm-hmm. ak ni mu doon doxale ci politique demul woon ba grassroots yi ñoom ñëpp xam nan la mbiri di doxee Sonko nag dafa ñëw def euh, euh, loo xam ni benn euh, kenn ku bëgg a xeex système bi defagu ko. mooy ñëw fexe ba ñi doon nelaw yëpp. ñëpp yeewu ni ah kon ñun ñoo ngi nelaw. Mm. léegi leer na mbir maa ngi nii. léegi nag loolu lañ Sonko euh, succeed loolu moo tax ñoom ñëpp ñu mere ko parce que bëgguñu woon nit ñi yeewu dañu bëggoon nit ñi kon ne di nelaw mais comme ni ma la ko tënkale daal li tax Sonko xeex bi ñu koy xeex metti wuute ak ñin fi doon xeex parce que boo jëlee li ma doon wax sànq Abdou ak Abdoulaye Wade lu tax xeex bi méttiwul ba tar ba Abdou Diouf daaw ko tere mu bokk mais c'est pas euh, because Sonko euh, ba ba Abdou Diouf moom ak ak mag ak Abdoulaye Wade ñoo bokkoon système bi dañu wuute woon xalaat ke dani socialiste la kee ne démocrate la euh, liberal democrat léegi loolu moo doon seen wuute wante ci lileen leen boole bàyyi France muy ñëw Sénégal di jël sunu alal Euh, French companies yi di contrôle euh, di contrôle euh, économie bu Sénégal ak bàyyi France muy wax kan mooy jiite ak ku dul jiite ak government bi ak institutions si ak justice bi ni muy doxee ak lépp nga xam ne lépp ci xalaatu France lañ koy defee ba ci njàngum Sénégal. Mm-hmm. lépp France mooy wax la leen jàngal sénégalais yi pour que sénégalais yi di continuer di nangu France di leen not mm-hmm. léegi loolu ñoom déggoo woon nañ ci. mooy Abdoulaye Wade di Abdou Diouf ñoom amuñu problème ci lool loolu moo tax France daf doon seetaan mosu ci dugg parce que ñoom ñaar ku ci win yàqalu ko dara wante nag tey su ngeen gisee Emmanuel Macron dafa far ci euh, booru Macky Sall parce que Emmanuel Macron xam na ni bu Ousmane Sonko jëlee ndam li 2024 euh, léegi li nar a xew mooy dañuy soppi doxalin ñëpp xam nañ ni Sénégal munul ni France na euh, na na kiit loolu mënul nekk fii kenn mënu fi def loolu mi ngi mel ne nga ni the Gambian people dañu taxaw ni léegi na UK dug bu mu duggati seen réew lool mënul nekk wante li mun a nekk mooy mm-hmm. ngi mun ngeen di seq cooperation ku ci nekk mu nekk win-win situation win-win ku ci nekk nga am ci gis ci sa bopp mm-hmm. ñun nag suñu xoolee French speaking countries yi luy seen jafe-jafe yu wuute ak English speaking countries yi nga xam ñoo nekk Afrique mooy que ne ñële ñoom duñ la not ci xel dañuy def cooperation ak yow wante dañ lay bàyyi nga demal sa bopp French nag ñoom culturally speaking lañ lay lan lay lan lay lan lay lan lay lan lay dominate mm. la loolu moo tax ñoom dañuy ñëw dugg ci sa biir politics dugg ci sa njàng dugg si ci sa économie dugg si ci lépp ba lépp ñoom ñoo koy contrôle léegi nag loolu moo tax bu ngeen xoolee bii yoon lu tax Sonko euh, Euh, ki ko gën a sonal du Macky Sall kese parce que Macky Sall li muy def daf ci am support France daf ci am support USA ndaxte réew yooyu dañu am ay interest ci Sénégal comme niñ ko amee ci réew yu bëri mais réew Sénégal dafa nekk senegal dafa nekk réew mu am solo ci sab region bi parce que Sénégal su amee ku koy jiite surtout que sab region bi dafa am soppeeku bu ndaw bu fi am parce que sab region bi dafa am lu soppeeku ci ci ci benn at bi ñu génn nii dafa am ñetti réew yoo xam ne dañu génn ci ci ci sub-région bi demal seen bopp di am indépendance boo xam ñi ngi koy fësal bu ci mel ni Mali. Mhm. ak Assimi Goïta nga jël Burkina Faso ak Ibrahim Traoré. Mhm. nga jël également général Tchiani nga xam ne moom euh, moom soldier la boo xam dafa jël ngur gi Niger. Mhm. léegi réew yooyu. li fa xew la ñuy bañ mu yaatu. dañuy bañ mu tas parce que réew yooyu France troupes yi dem nañ léegi génn nañ leen fa. su ngeen xoolee léegi kii daal kii daal nga xam ne foofu la ñu nekkoon ñoom ñu tuddalee euh, ay terroristes. Mm-hmm. nga xam ne ñëpp xam nañ duñ ay terroristes dañ fa nekkoon pour euh, tas Mali mu nekk ñaari boor. Mm-hmm. bu ko defee ñoom euh, tubaab yi ñu contrôle benn pàcc bu mag. ci Mali mm-hmm. léegi nag loolu actuellement Mali mi ngi rek mi ngi jëlaat réewam léegi nag loolu di xew ba France amatul doole ci réew yooyu ñetti réew yooyu amatu fa doole. léegi nag loolu moo tax France tamit day gën a tiit bokkul ak bu doon loolu amul woon. Hmm. léegi day gën a tiit danaan léegi ñàkk na ñetti réew. foofu laa bëgg a ñëw foofu laa bëgg a ñëw ah, Ousmane am na ñu wax ne his mission ah, mission bi mu war a am Afrique. am not ko ba pare ah boo soogee tey Gambian yuur si ku mel ni man ak ñeneen ñëpp di déglu xam Sénégal like tey ah, gis naa si TikTok benn boy mu ne moom xam na mandat mandade arrêt ah, mandat dépôt like all the jargons all the things we know Sénégal seen mineral resources thanks to him talking about Senegal and wealth. Uh, we know the judiciary system. We know everything. And, you know, he has enlightened the African youth population mm-hmm. and loolu moo tax uh, ñu mission is already accomplished whether he becomes president or not that's the added bonus but lim na mon mo ye askan gi te yemul si Sénégal rek me ye na Afrique ndawi Afrique me xeex bi est mun na mun na win because he has a big forces behind li wa France um, they have lost Burkina Faso they have lost Mali have lost Niger Senegal is the sole country for him ne you can rely on it and to be honest Senegalese position in the sub-region is huge Senegal is the leading country in the sub-region France will not want to lose that to somebody who believes they believe has a very radical decision when it comes to colonial colonization um, ndax Ousmane uh, win with all these forces the Senegalese elite the judiciary is not with him I mean, most of it. We have seen what happened in the judicial system. How can Ousmane win this fight, Dambo? Uh, man jàpp naa ne Ousmane li nga wax ci sa njëlbéenu wax uh, moom moo am Ousmane uh, mbir mi li mu bëggoon def na ko ba pare parce que Ousmane moom tegul rek ni boppam rek la war a doon. loolu if nit ñi dañ ko war a xam. te man dañuy waxtaan lu bëri man ak Ousmane. Ousmane dafa man dama nekk nit koo xam ni euh, bala muy dogal ci yu bëri daf ma ci laaj sama xalaat bokk naa ci ñi muy laaj parce que Ousmane. Mhm. nit ko ubbeeku la. lépp lu muy def day waxtaan ak nit ñi. Euh, du loo ko wax rek nag mu def ko parce que loolu tamit mooy njiit njiit da ngay déglu ñëpp. Mhm. wante soo waree jël décision nga jël ko moom Ousmane loolu lay def man daf may déglu yenn saa yi ñu déggoo. yenn saa yi ñu gitangaas comme ni ko olof yi waxee. Mhm. Euh, du ñu wax ma wax mun ma li nga wax ma d'accord ma ci mais comme moom mooy decide Euh, su su fekkee déggoowuñu moom mooy decide mhm. wante nit ku mën a déglu nit ñi la donc Ousmane li mu bëggoon euh, lu ci ëpp am na ko mooy lim mu bëggoon mooy ñëw taxaw won Afrique won yuuf bi ni leen yéen réew yi ngeen dëkk yéen a ko moom mhm. parce que ëllëg ëllëgu réew yooyu yéen la parce que mag yi ñoom seen wàllu wéy na te yéen yéen a war a dem waxtaan ak mag ñi pour ñoom tamit ñu ànd ak yéen parce que comme ñoom seen wàllu wéy nañ te ñoom mag yi ñoom ñoo leen fi andi kon su ngeen waxtaanee ñoom dañ nangu euh, jàppale leen ci li ngeen di xeex loolu moo tax su ngeen xoolee euh, ci euh, li Ousmane di di succeed ci xeex bi muy xeex ci mbirum politique daf koy daf koy succeed fii mais day am impact ci yeneen réew. yu mel ni ay Mali ay Gambia ak yeneen réew yëpp da ngay gis ni léegi. Euh, yuuf bi dañu nekk ci wetu Ousmane Sonko di dem sax di am yeneen euh, leaders yoo xam si ñu ngi yeewu ci yenn réew yi ku ci mel ni Tchad boo jëlee Tchad am na benn leader bu fa nekk bu tudd Succès Masra mais Succès Masra moom ak moom ak Ousmane Sonko ñoo yem d'abord euh, ñoo yem ci at mais yem ci gis-gis mm. ak ni leen xale yi bëggee boo demee Succès Masra daanaka mënoo jiite réew mi te waxoo ak moom mm-hmm. moo tax biñ ko bi mu demee exil en France réew mi nekkoon ci fitna président bi fa nekk muy doomu Idriss Déby bi nga moo ko jiite ITNO. Mhm. dafa dem wut ay nit ñu ko wutal ay ay ay ay ay ay trouble yoo xam ñoo nekkoon ci diggante bi ba naxante ba mu ñëwaat ci réew mi. Mhm. ndaxte boobu réew mi dafa tar ba mënu ko jiite. léegi li mu nekk ci biti suñu xëyee tele yi rajo yi ñëpp ci moom la ñuy wax. léegi nag moo xam ni kon moom mi ngi jiite mais dara daanaka jiitewul dara. léegi mu woo ko mu ñëwaat mujj na ñëwaat ci réew mi. noonu moo moo lay wan ne Afrique mi ngi change. man loolu mooy li ma jàpp ne Ousmane def na ko ci loo xam ne kenn mënatu ci dara dafa taal xel yi mhm. yewi nit ñi ak yewi askan wi ba askan wi gis seen bopp ci li muy def loolu moo tax man jàpp naa ni Ousmane am na ndam ba pare léegi nag li ci des rek mooy ñu eggale ko léegi kan moo koy eggale ndax moom lay doon mhm. wala ku jóge ci moom loolu yeggagun ca mais moom li mu jàpp mooy moom lay doon ndaxte dafa jàpp ne askan wi ñoo moom réew mi Sénégalese people su ñu nee diw lañ bëgg mu jiite leen kenn mënu leen tere mu jiite parce que képp ku bëgg a foqarte li askan wi moom da nga ko foqarte wante doo ko mën a jariñoo c'est-à-dire kenn mënul fexe ba askan wi yëpp ni diw lañ bëgg nga ne yow diw moomu du fi falo diw moomu du nekk du ran ci élections yi ba noppi jàpp ne yow boo winee élections yi di nga nekk di jiite réew mi ci dal loolu mënul nekk li la koy won ngay dégg sénégalais yu bëri naan la waa maki Sall moom candidatam bii nga xam mooy Amadou nga xam kenn euh, moom fu mu dem danaan maa ngi nii maay Amadou Ba ci élection yoo xam ñaari weer moo des ba noppi ñi mu dem wàcc ci mbedd mi mu campagne. ah mais gis naa ne am na three three million plus parrainage. ci tappale ah ñu ne three million am nañ ko waa ci tappale. ah ñoom amuñu sax Euh, divide ko by ten amuñu ko ñoom amuñu dara parce que kenn gisul ci mbedd ñu ñu ñu dem di di def parrainage. kenn gisul mais kon fan lañ jëlee si dañoo jël ay xale ñu toog di bind loolu def ñëpp xam nañ loolu ak di dem ci ay euh, foo xam ni boo fay jaar da ngay joxe sa carte nga joxe sa carte d'identité ñu xool euh, yow sa carte ñoom ñoo yore ñoo yore. personal data yu nit ñi ñoom ñoo ko yore ku ci nekk système yëpp ñoo ko yore donc ñoom bu leen neexee bindul leen neex bu leen neexee sax et bu leen neex sax toog di wax rek parce que lu ñu wax la mën nañoo jël sax ay fiches rek toog di bind léegi bu ñu bindee ba mu neex leen teg ay ay ay ay walis teg seen suitcase yu bëri wax ne dafa fees ana fan lañ ko génne kan moo ko certifié di ñu lu ñu wax rek. Mm. léegi nag li koy certifié mooy élections bi maintenant loolu li fay waajal moo ci am solo soo gisee ñuy waajal nit ñi ni ñoom am nañ. 3 euh, million ak lu teg daanaka mën nga wax sax 4 million. parce que ñoom li ñu wax dafa jege 4 million. of course 3 million loolu 3 million yu mu teg lu bëri. 7 7 voilà li ñu wax ñeenti million la. Mm-hmm. yu manqué tuuti. man toujours damay wax ne bu ñu wax ñetti million ñeent. ñeent lañ wax yu ma yu manqué tuuti. moom lañ am waaw léegi. Macky Sall mi nga xam nee nañ moom moo gën a am doole si ñoom mosu ko am. amul benn nit bu mus a am lu toll noonu ci benn réew. Amadou Ba nga xam ne kenn xamu ko nga xam ne Macky Sall bërki démb dem na fi ci benn euh, benn benn benn benn euh, présidential kii <laughs> bu mu def meeting mhm. boo xam ne mi ngi ko def ci fi nga xam moom foofu la ëpp doole Sénégal moom mooy li fi ñuy wax siin Saloum mhm. nga xam ne diggante Kaolack la ak Fatick foofu la foofu la def mhm. présidential meeting boobu avec euh, de de cabinet léegi mu woo ci nit ñu bari ay kilifa yu bari mu woo leen fa am na fa ku fa jël Euh, euh, parole mhm. mu jël euh, mu wax mu ni maa ngi président maa ngi lay wax ne la soo demee na nga wax Amadou Ba na xelam dal <laughs> te moom Amadou Ba ngi ci wetu président Macky Sall <laughs> te moom xamul ni kii mooy Amadou Ba man amado Ba kenn xamu ko léegi nag ni ñi ku ñuy wooteel dañ lay xam léegi nag ñoom xam nañ ne Amadou Ba mënta am sax ci région boo dugg mënu fa am bu fekkee dañuy jox nit ñi ñu jaar ci kër yi ñu leen di wax ñuy sign di wax ne man diw laa àndal pour parrain ko buñ bu dee loolu la Amadou Ba munul am sax one thousand people yu nekk ci ginnaawam donc loolu xam nañ ko ñoom wante comme ñoom ñoo yore nguur dañ koy wax pour nit ñi dégg ko hmm. léegi liñ ci bëgg moo am solo liñ ci bëgg mooy waajal liñ bëgg a def li ñu bëgg a def mooy dem ci élection boo xam ne si dañ naan ñun ñoo gagné by force loolu lañ bëgg léegi nag loolu des na ci sénégalais yi sénégalais yi suñu euh, gëmee ni ñoom suñu taxawee ci euh, Euh, fi ñuy wote yëpp mhm. ci mbañ gàcce ñu taxaw toog mu ñu teg ko mu leer euh, political parties yëpp am fa ku leen di représente lépp jaar yoon ñu wàññi ci kanamu nit ñi lépp jaar yoon man jàpp naa ne Amadou Ba mi nga xam ne moom mooy candidat bu Macky Sall euh, bu amee second round moom du ci bokk moom mënul bokk moom waxuma la gañ waxuma la win election wante su su election bi jaaree yoon faraluñu kenn kenn jàppalewuñ ko ñu bàyyi Senegalese people ñu dugg ñu war a wote yëpp ñu dugg seen carte d'identité ñu dem ñu wote mhm. loolu su amee fii laa koy waxe Amadou Ba bu élection bi jaaree yoon mënul dem second round bi bu fekkee second round ano parce que bu nit ñi fàtte ni bu dee euh, cabinet yi nga xam ne ñoom ñoo def surveys yu mujj yi ñi ngi nekk bitim réew duñu sax Sénégal Ousmane Sonko xamu leen yëgul woon sax ne dañ koy def ñan ñoo leen ko defloo ñaari euh, oil companies yoo xam ne ñu ngi fii euh, ci sunu euh, Sabrujen ñoom ñoo deflu parce que companies yi mhm. les multinationals xam nga ñoom duñ dugal seen xaalis fu leerul yéen mun ngeen ma ko nangul yéen waa Gambia bi ngeen nekkee ci jafe-jafe yooyu bi ngeen demee ba political yi mu amoon ay jafe-jafe Euh, xam ngeen ni compagnies yu bëri ñu ngi commencé woon ragal di invest. parce que doo invest ci benn réew. boo xam ni wóolu wóolu la ndax day am political stability. léegi loolu moo tax ñoom bu election jegee ci benn réew. dañuy def ay survey pour xam ñoom ñoo koy defal seen bopp parce que dañuy bañ sukkandiku ci survey boo xam leerul ñoom ñoo koy defal seen bopp parce que ñoom dañuy bëgg ñu jox leen ay fair statistics yoo xam ne day leer ni lii la nit ñi bëgg def léegi nag bi ñu defloo survey ñaari surveys yooyu. léegi dañu gis ni euh, Ousmane Sonko day win euh, by fifty two point thirty four percent fifty point thirty four percent bi gën a bon. boobu mooy bi nga xam ne nee nañ bu ñu demee ba nit ñi génn ñu woote mais bu nit ñi génnee woote dafay dem moom Ousmane Sonko ba more than euh, sixty five percent loolu lañ génne. ñu ne bu nit ñi génnee wote te ñëpp gis nañ ni nit ñi ni ñu bëggee Ousmane. mu ni ñu ne bu nit ñi génnee wote maanaam the participation rate. ci élection bi soo xaayee. soo xaayee rek Ousmane dafay gagné euh, avec euh, big majority. maintenant su fekkente ni dafa low dafa low participation bi ci élection bi ñoom loolu la ñu wax ñu ne lu mu low low low low. Ousmane day win euh, ak 52 percent yu teg. waa léegi loolu moo tax ñu ki ñu ne kii su bokkee ñun. yàqu nañ te loolu li nit ñi xamul mooy bi ñuy def euh, figures yooyu bi ñu koy am bi figures yooyu di génn mhm. boobu Macky Sall waxagul sax ni moom du dem sa terme euh, loolu lim lay jàngal mooy même ki ëpp doole lañ wax ni bu ñëwee noonu lay demee waxantuma laag nag ñu dem jël ki nga xam moom moo gën a ñàkk doole ci ñoom seen political party hmm. <laughs> ba noppi am ñu gedd te bi ñooñu bi ñuy def figures yooyu bi ñuy def survey bi boobu ñoom ñëpp ñi nekk ni ñum ñoom ñëpp together y avait mm. maki Sall ànd ak ñoom ñëpp léegi benn Macky Sall mi ñu waxoon ne même bu demee ak Ousmane Sonko li gën a ndaw pour Sonko am ko mm-hmm. mooy euh, first term euh, first round bi la ñuy yem te Ousmane Sonko dina am fifty two percent yu teg léegi ñu ni même even bu ci Macky Sall bokkee léegi nag ñu ni moom euh, ak ñim àndal ñëpp léegi nag ñu dem ba Macky Sall ni moom da léegi defatul ñetteelu mandat mën a demul defi wuti third term léegi bàyyi na. Mhm. léegi mu fal koo xam ni political party am les members ñu bëri ci ñoom ànduñu ci limu mu decide léegi euh, benn am ñu bàyyi ñoo xam ne dañu leen wàññi waale woon sax ci survey bi. dañu leen wàññi waale woon ba Sonko am. fifty two percent yu teg dañ yu gën a ndaw parce que dañuy ah, euh, between fifty two percent euh, ba to sixty five foofu la Sonko nekk mais bi gën a ndaw mooy fifty two percent kon moom c'est second round mënul am bu dee Ousmane Sonko ak Macky Sall léegi nag Macky Sall bokkatul te moo ëpp doole ci ci ñoom ñi mën a nekk ci seen boor ñoom waa système bi léegi nag mu am ñu génn ñu am doole ci ci seen political party ki nga xam ni mooy Aly Ngouille Ndiaye nekkoon the former Euh, ministre of home affairs nga xam ne moom ci ki ëppoon doole ci seen political party parce que ñoom seen political party à part euh, apart from Macky Sall ak ñi nga xam ñoo nekk au north euh, du country donc du pays ñoom ñoom à part ñooñu presque amuñu amuñu ay nit ñu am doole mm-hmm. léegi nag ñooñu def ci am ñu amoon doole ci biir survey boobu nga xam ne defoon nañ ko bi Macky Sall waxagul ni du dem wutaat beneen beneen ay beneen term léegi Euh, mu am Aly Ngouille Ndiaye mu génn Aly Ngouille Ndiaye dafay contrôle benn euh, area bu am doole ci political euh, situation Sénégal mooy the region of Louga foofu la ñuy wax wolof les wolof mm-hmm. ñu mën leen tuddee jolof jolof mm-hmm. jolof mm-hmm. xam ñoom ay wolof lañ te dañu am ay doole ak ak ay pulaar yoo xam ne dañ doon dañ doon vote parce que Macky am na ñu bëri dañuy wax ni eh, eh, eh, race ethnic race bi mu bokk dañ koy woteel lu bëri loolu c'est normal parce que réew moo dem am na fa man su ma nekkee candidate wolof yi dañ may woteel ndaxte loolu moo am boo demee euh, ci réew boo mën a dem même euh, United States am nañ loolu boo demee California dañuy vote for Democrats nga dem euh, Texas ñuy vote for Republicans that's normal ku ci nekk da nga xam foo xam ni moom mooy sa mooy sa kër foofu say mbokk ñoo fa nekk di la jàppale. wa léegi nag foofu daf ci am mm. koo xam ne léegi candidat la bàyyi na moom Aly Ngouille Ndiaye te dafa nekk ci ponkal yi. ñëpp xalaat ne moom bu génnee dina yóbbu lu bëree bëri bëri ci area bi mu dëkk te moom candidat la benn ñaareel ba dafa nekkoon ci position bu stratégique dafa nekkoon minister of home affairs nga xam ne gouverneurs yëpp mooy seen kilifa mm-hmm. moo leen fal préfet yëpp moo leen fal ba noppi ñooñ di ko nekkal ci dëkk yi am na ci sax fan yii ñenn ci ñoom ñoom ñu ngi leen ay ñu ngi leen di dàq parce que dañu ragal ni dañu nar a nekk foofu nekkal ko fa. Mm. donc moom am na doole fi mu dëkk. mais tamit ci réew mi fa teg ay tam ci administration bi. Mm. léegi kooku bàyyi na kon da nga ko ciy génne. nga génne ci tamit koo xam ni. Euh, ci south bi dafa amoon doole ci élection yi passé ndax maire la ci dëkk bu tudd Kolda mooy Mamboy Diaw Mamboy Diaw tam génn génn fan yëpp ñi ngi xeex ak moom foofu Kolda mm-hmm. am na sax ay xeex yu amoon ci biir euh, town hall bi mm-hmm. bu bu Kolda fan yi donc euh, Mamboy Diaw tam génn yóbbaale ay nitam mm-hmm. mu amoon benn former prime ministre prime ministre bu tudd Boun Abdallah Dionne moom bi ñuy wàññi ni Macky Sall lii lay am Sonko lii lay am moom mi ngi woon ci li Macky Sall am tey kooku génn na moom itam tam prime ministre la te ku xam prime ministre ci réew bu mu mënti doon. prime ministre dafa am doole ci ni réew bi di doxee. ndaxte président mooy dogal décision yu mag yi. Mm-hmm. wante décisions yi pour ñu euh, apply ko moom prime ministre moo koy apply moom ak ay ministres yi nga xam ñoom ñoo nekk ci different sectors yi. te léegi nag moom dafa dem ba séq ak nit ñi lu bëri parce que fu nekk le prime ministre di dem. Mm-hmm. séq ak ñu bëri léegi nag kooku te prime ministre boobu tamit dafay tibb lu bëri ci ñoom. waa léegi ma sax yeneen candidat comme ki nekkoon euh, minister of the budget nga xam ne mu ngi donc tuddoon Birima Mangara nga xam ne moom tamit dafa génn wut euh, part euh, wax ne moom it day dem election candidate la wa donc boo génnee ñi génn ñëpp ci Macky Sall ak ñi nga xam ñi ngi ci biir political party bi mais ñi ngi dem faral ay te ay ponkal lañ dem faral faral Aly Ngouille Ndiaye wala ñu faral Birima Mangara wala ñu faral Boun Abdallah Dionne wala ñu faral Mame Boye Diao ay kilifa yu mag yoo xam ñoom it ci seen area dañ fa am doole. Mhm. waa léegi loolu lépp boo ko boolee ñoom nan lañ mën a yónnee elections yoo xam ne ci bërki démb yàggul élection yu mujj yi mooy législative elections yi mais dañu gis ni euh, dañu témboo. dañu témboo mais soo soo loolu tam di nga xool ne yeewi askan gi tam fu mu ne ni tas naa. Ah. waaw loolu dëgg la. yeewi askan gi tas na. Mhm. Um, Bartolomé Dias ak Khalifa Sall wax nañ ne they were founding members of the yeewi askan gi ah, génn nañ baat ah, ak loo mun a wax. mooy he is the mayor of Dakar and obviously am na influence in Dakar and Halifa a former mayor has some influence ñoom tam génn nañ gis nañ uh, ñu mel ni um, uh, kii seen mandataire bi woon naka la tudda mm-hmm. uh, yeewi seen no not yeewi Déthié ak ñeneen candidates coming out of yeewi dafa mel ne Ousmane Sonko tam si last um, parliamentary election numbers yuñ am am na yoo xam ne they are not with him right now how uh, loolu li ma la si wax lu uh, simple la. Mm-hmm. gis nga Ousmane Sonko. Eh, Yewwi Askan Wi moom moo mos yore doole ji ñu bëri li ñuy fàtte mooy que ni ñu bëri dañ leen a fal meilleur te ñi leen fal xamuñu kan sax lañ teg ñoom waa Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi dama lay jox benn anecdote eh, bu ñu doon dem ci uh, campagne bi. Mm-hmm. pour wan la ni Ousmane mo yore doole yeuy askan ben moy mooy mujj wax parce que bu waxee jeex tasna Khalifa Sall bu Ousmane Sonko waxee ba pare du wax wala buy wax kenn du ko déglu parce que day fekk nit ñi dem nañ nit ñi Ousmane Sonko lañuy ñuy déglu bu doon campagne Ousmane Sonko moy the last person to take the floor parce que su waxee ba pare tasna, lolu firnde la ci limay bëgg wax buñ doon dem. ku ci nekk ci leaders yi. Mm. yu yewi askan wi. danga doon fexe ba toftal sa oto ci oto Ousmane Sonko dañ ci doon xëccoo ku ci nekk da ngay bëgg sës usmaan Sonko su fekkee Ousmane Sonko invite la nga dugg si oto donc ku ci nekk euh, boo yoree sa moto da ngay ñëw sës ku ci Ousmane wala nga wax Ousmane da nga bëgg dugg ci bosam waaw loolu li nga si jàngate mooy Ousmane moo yore doole yeewu askan ñi ñiy yi xamuñu ngay wax noonu. ay euh, amoon na Déthié Fall amoon na. Euh, ah, amoon na amoon na amoon na Barthélemy Diaz amoon na dama lay wax c'est important borom Dakar ay wax la xam nga lu tax ah. gis nga man bi elections yu yu euh, townships yi commencé hmm. man dama woo ay nit ñu jege Ousmane fek fan yooyu dama amoon jafe jafe-jafe pour jot Ousmane ma ne leen ne leen Ousmane Dakar na ko jël biñ ko ko ma jàppee ne waxuñu ko ma bin bin naa ko fekk bin naa ko euh, react lu woon. ci euh, téléphone am. léegi ma dem ci ay émission yu mel ni sa bos ma taxaw ma wax ni Ousmane Sonko na jox euh, Ziguinchor Ziguinchor ma ma maire keneen. mu nekk maire of Ziguinchor. léegi moom na xëccoo Dakar parce que bu xëccoo Dakar mooy mooy win loolu bi ma ko waxee. Ousmane comme moom dafa jàpp ne Barthélemy Dias doomu ndeyam la mu ni man du ma def loolu ndaxte man euh, Barthélemy Dias sama doomu nday la kon naa bàyyi rek Barthélemy Dias mu jël dakaar parce que Khalifa Sall bii tey bëggul woon Barthélemy jël Dakar dafa bëggoon Soham Wardini nga xam ne moom moo doon ki nga xam ne moom moo euh, moom moo moo bokkoon ak ñoom liñ doon nas ñoom ak euh, Macky sàll moom lañ bëggoon mu nekk mu nekk mu nekk maire bi ndax biñ ko fa jëlee moom lañ fa tegoon waaw léegi biñ ko waxee Ousmane moo taxaw ne Khalifa Sall Khalifa Barthélémy Dias mooy nekk maire bu Dakar même bu la neexul loolu mooy am te man Barthélémy laay support te pare naa pour ñu tas Yewwi Askan Wi bu dee Barthélémy du nekk maire of Dakar loolu tax Khalifa Sall dellu ginnaaw parce que xam na ni ku gis li muy waaj li mu def ni euh, after da ngay xam ne kon à euh, date moment su amoon clash diggante moom ak euh, Ousmane Sonko ndax Barthélémy Dias kon Barthélemy Dias kon heure bi dafay fekk mu ngi ci wetu Sonko loolu moo tax Khalifa dellu ginnaaw fekk si Ousmane Sonko pour que ñu teg euh, Barthélemy Dias li ma la bëgg a wax mooy mhm. dëkk yu bari yu Yewwi Askan Wi gagné est-ce que xam nga lenn fu Ousmane dem rek Yewwi Askan Wi gagné na. gis naa ko wax ne Ousmane moo tax gagné wu ma ñëwul sama région. voilà kooku euh, ku bokk ci Khalifa Sall la. ma Saint-Louis. Saint-Louis euh, mi ngi tudd Abba Mbaye. Abba Mbaye moo ko wax. Mhm. moo ni man euh, euh, local elections yi lu tax nekkuma mayor of Saint Louis li ko waral mooy euh, moom moom kii moom moom Sonko moo ñëwul mu campagne sama region loolu moo tax ma ñàkk Saint Louis ndax li tax li doxoon si digganteem ak Mansour Faye nekk Euh, brother in law bu euh, bu bu Macky Sall ndaxte moom brother la bu first lady mhm. léegi moom moo tax mu mujj gañe wante te li firndeel loolu lii firndeel loolu biñ ci tegaatee ñeenti weer euh, ñu ñëw législative elections mhm. moom Abba Mbaye boobu mu nekk candidate pour Saint-Louis jiite Yewwi Askan Wi bu Saint-Louis waaye bii yoon Ousmane Sonko dem campagnal ko à Saint-Louis moom mu win Mansour fay nekk candidate bu Macky sàll moom Aba mu nekk candidate bu Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko dem Saint-Louis defal ko campagne mais mu win euh, win bu metti daf ko win ba romb ko lu bëree bëree bëree bëri donc loolu lim lay wax mooy effi euh, euh, liy dëgg mooy ñoom ñi win yëpp ñu ci ëpp ci ñoom li ko waral mooy Ousmane Sonko moo tax nit ñi woteel leen léegi nag boo jëlee. Euh, xaritu Yaasin euh, euh, muy Jamil Sané mhm. bu parcelle Parcelles Assainies mais Parcelles Assainies Jamil Sané mais kenn xamu ko fa li may koy tooñee ni benn néeg la fa luwe woon dafa rent benn room <laughs> nekk foofu ni ñi xamuñu ko mhm. Ousmane Sonko tan tànn ko ne ko yaay nekk maire bu bu Parcelles Assainies wax section yu Pastef yëpp ni campagne leen ci ginnaaw make your campaign ci ginnaaw Jamil Sané yéen ñëpp bu ko kenn fakastal bàyyi leen ko bu ngeen ànd moom day gagné ndaxte man nit ñi man la ñuy wooteel man Ousmane wooteeluñ Jamil Sané ñoom ñëpp Parcelles Assainies yëpp déggal Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñëpp ñu nekk ci ci terrain ci ci ci ci grand di campagne léegi nag loolu li nga ciy gis boobu kan moo nekkoon kan da di xëccoog ñoom mais ay ponkal. ay Moussa Sy nekk former maire euh, ak ki nga xam ni euh, moom moo doon Amadou Ba mii tey. yore milliard. Mhm. Euh, who is a billionaire. donc Amadou Ba dafa am alal. alal boo xam si ñëpp xam nañ daf ko sàcc. te ah, te ñëpp kenn werantewul loolu. Mm-hmm. léegi moom euh, ak euh, ñi mu àndaloon yëpp ay Mbaye ay ministre yu mag yu nekk ci gouvernement bi ñoom ñëpp teewul Jamil Sané ku kenn xamul Parcelles Assainies moo win élection mm-hmm. bi ci élection maire yi euh, nekk mayor of Parcelles. Mm-hmm. donc loolu li nga ciy jàngate mooy nit ñi woteeluñ ñi nga xam ñoom lañ samp. nit ñi Ousmane Sonko lañ àndal Ousmane Sonko la ñuy topp comme niñ koy waxee. nit ñi Ousmane Sonko la ñuy topp. léegi nag loolu moo tax ma daaneel si loolu. pour wax leen la. dakaar bu Khalifa euh, euh, bu bu Khalifa Sall mënee gagné moom Barthélémy Diaz dafa fekk ne Ousmane Sonko moo yaatu dënn rek moo leen yéene rek mais su tegoon Abbas Fall. ci parte mi nga xam Abbas Fall mooy jiite dakaar pour Pastef. Mhm. wala mu tegoon sax ab jaaykatu marché Sandaga <laughs> bu kenn xamul day gagné. mairie bu Dakar man maa ko man Dame di ko assumer te balam mu ñu yàgg incha allah yàlla dinañu àtte parce que su fekkee yàlla may nañu fan wu gudd. bu élection amaatee incha allah Dakar. Mhm. ba ñu taxaw ñu ne Barthélémy Dias mooy candidat bu taxaw à Dakar di xëccoowaat mairie bu Dakar Ousmane Sonko teg nitam kum kenn xamul bu boobaa dama naan Ousmane bul teg kun xam tegal ku kenn xamul defal comme comme li nga def parcelle defal loolu bul teg ku kenn xam tegal ku kenn xamul. Ousmane Sonko mooy jiite boobu moom ki ki mu teg mooy gagné mairie Dakar. kon da nga bëgg a wax ne Barthélémy Dias bi mooy last mandat am Dakar. ma Barthélémy jeexal na ci mairie Dakar dootu ko jiiteeti. loolu la Dakar waa yëpp di wax loolu sax sori na xam nga moom euh, bala muy jël mairie bu Dakar dafa gagné woon. même euh, moo Sacré Cœur. waaw parce que dafa gagné fi nga xam ne mooy goxam. Mhm. Euh, ba pare léegi doog dem Dakar. Dakar foofu sax mënatu koo gagné. ak taxawaay bi ñu am ñoom. waaw bu ñu delluwaatee ci élection. taxawaay bi sax mënu ko taxawaay bi daam dégg naa la ci interview yu bari ah, ci yewi even in yewi askan wi you said it long time balaa lii lépp man dama la suivre trop. dama lay bàyyi xel trop dégg naa la nga génn lu bari time boobu yeewi mu ngi nekk benn bloc <laughs> and yu said ne am na ñoo xam ne yeewi askan ñu ngi reer ak Macky Sall mm-hmm. and yu kept saying Ousmane dafa wara a bàyyi xel and yu you you said so many things and people were like at that point, man, some of them like that boy me mom, Lumu Yakar. All people wanted was for Yewi to win and have the majority in the assembly. But you kept on saying this and lan nga on time boobu Let me get mais li xew nii laa gisoon. boo gisee was my favorite politician in Senegal I want to say this before. and jour bi ñu um, téye Ousmane Sonko um, Barthélémy Dias a deaf interview uh, Sénégal ak Maymuna ak Maymuna uh, that lady right. Uh, uh, Set TV. Set TV something like it was all programmed just to come a man that was already down to kick him to the curbs gisee loolu and and you said and you had said it before what was your reaction. mosuma bett mosuma bett yàlla xam na ko. Mm-hmm. parce que man ñiy jiite Pastef yëpp. nga doore ko ci Ousmane dama leen doon wax loolu Ousmane su ko doon wax ne ko Khalifa Sall wóoluwuma ko. daf daf may tapp tàppal ni ma mais daam yow da nga contre grand bi moom grand bi la kay tudd daf ko respecté dafa jox cër Khalifa sal mais cër bu ëpp bi mu ko jox moo ko yóbbee li mu ko yóbbee nii mm. xam nga nag man njàmbur njàmbur la xam naa nag doo xam nan mooy njàmbur njàmbur mm. ñun culture wolof lañ yore euh, wolof culture te wolof culture dafa buri ay nun lay tàggate noo xam ne boo toogee koo xam ne tàppalekat la da nga koy xam mm. loolu ñun dañu ñu koy mooñaale da ngay ñëw toog ak sa yaay wala sa papa nga wax par rek mu dóor sa mu toj sa nopp bi daal di lay dóor nga wax ko mun la li ngay wax da ngay kàcc te pourtant amagul sax lu ko leer. mais bu demee ba ci biir day am dëgg. Mm-hmm. parce que day lay xool ni ngay ni ngay doxale mu xam ne yow da ngay kàcc nga xool nit rek mas naa dama lay nettali comme man teacher laa. Mm-hmm. dama mos a xool benn élève boobu maa ngi Oussouye en euh, Casamance. Mm-hmm. foofu laa njëkk a jàngalee. ma nekk ci classe bi di def euh, di def euh, di évaluer xale yi. Euh, nga xam ni euh, dañu war a sëgg liggéey seen liggéey kenn du kenn du kenn du kenn du kenn du euh, tricher. léegi ma ñëw xool benn élève dama génnoon dem ñëwaat. Mm-hmm. ma demoon am lu ma doon régler ci administration bi kenn nekkul ci salle bi ma ñëwaat man daal ma mel ni daal dama xool be kenn ci ñoom man ni kii am na lu mu def sama ginnaaw xool na kayam. xool na copie yi keneen wala def na leneen vraiment am na daal lu mu sàcc. ma ñëw daal di koy wax ne ko yow commencé ko contrôle di kii mu commencé réa react rek first reaction rek ma xam ne am na lu mu def. Hmm. ma xool nag ni lan la def na laa koy defee ma jël. Euh, feuille bi ma xool gisuma copie bi la fa xaw a doy waar mais ma xoolaat ba benn ba benn moment rek ma jël feuille bi ma xool ko def nii fekk dafa jël big bu jeex mu bind euh, anseuse yi ci big bu jeex bi léegi nag teg ko di bind mais bi ma bi ma ko jàppee daf ne ma monsieur noo def ba jàpp moom d'accord na ni he he is okay moom dafa dafa dafa dafa dafa tricher mais mu ni man noo def ba jàpp ma ma ne ko man non seulement dañ ma tàggat ci jàngalekat mais man dama am culture boo xam si man tappalekat bu ma xoolee da dama xam da ngay tappale mm. man naka jekk musuma werante ni yewi askan wi da Ousmane Sonko dañ koy dañ koy use man loolu laa mus a gëm loolu bi ma koy wax daf doon daf doon it was a shock for for for many people. Mm. même included Ousmane. même Ousmane dafa doon wax ne ma daam bàyyi loolu ma ne ko Ousmane li may wax moo am ñii ay tappalekat lañ ñu ëpp ci ñoom ànduñu ak yow ñu ëpp ci ñoom dañuy ut sa tur pour am ay mayors ak ay ak ay ay MPs mais bu fekkente ni yow euh, loolu gisoo ko ci kanam dina leer mais moo tax bi mu leeree man amul dara lu ma si bett ndaxte nii la ma leere woon que ñu te ba léegi am na. ba léegi am na xam nga ñoon actuellement ñu bëri dañuy wax rek waa taxawu Sénégal Khalifa Bart mais am na ñu des. you keep saying mais am na ñu des. am na ñu des yeewi askan wi ñoo xam ni génn ñu yeewi askan wi Macky Sall lañu àndal man fii en Gambie Gambia laa ko waxee man du ma waxantu Fatou du ma waxantu actuellement at the bi ñuy wax. Mm-hmm. nii man ak yow am na ñoo xam ñi ngi yegg ñi ngi fekkee meetings yooyu yeewi askan wi Macky Sall lañu àndal. te ci kanam lay leer. kanam lay leer xam na te aw ma ci sax lu may dutee. Ah, I have no doubt. I I believe you. dat lay def ñëw na. <laughs> mën naa joxe ay tur su ma neexoon ma joxe ay tur. dañ ma ñaan ne ma bul joxe tur yi am na kilifa bu ma woo ma dimbali ma rek bul joxe tur yi euh, waxal noonu rek ndaxte ëllëg ñëpp dañ xam ne waxoon nga ko maki Sall la ñu àndal te ñi ngi yewi askan wi am na sax ñoo xam ne am nañ doom bay tànk te ñi ngi nekk ci biir yewi askan wi they attending the meetings of yewi askan wi. but they're not they're not with Sonko they're with Macky Sall. li mooy dëgg. li mooy dëgg li mooy dëgg soxna Faat. <laughs> léegi gis nañ ne um, last uh, bu Supreme Court defee seen ruling um, which was very surprising to a lot of people. two days after Ousmane Sonko uh, Pastef ñu uh, ñu relief candidate bi ñu waxee ne Ousmane day wax ma ne non bii moom ma gis Ministry of Justice ñu release a statement on Sunday am like dafa mel ne Ousmane moom mooy diriger réew mi daal fu mu toll nii moom kaso la toog daal ah di di di dogal si réew mi ah, moom mooy wax lu ñuy def ministère yi di def lu muy def but everybody was surprised waiting and to surprisingly ñu gis mu ah, ñu announce ne dañ pare ne Bassirou Diomaye Faye um, and gis nañ si la ñëpp ñu gis ne parrainage door na mais yow ba dégg la ba tey nga naan Ousmane mooy suñu candidat Bassirou Diomaye Faye la ñuy parrainer Ousmane Sonko dafa am dem court ba tey because munuñ koo delloo ci euh, fichier bi secondly gis nañ démba dem nañ deposit euh, pour euh, presidential amount bi ñu ko dee deposital ñu accept ko after ñu reject ko because ñu ne nekkul si liste bi naaw daam fan nga ko teg Ousmane mënatu na nekk candidat loolu la loolu la DG wax loolu la court si wax sa Sabassi fay nag moom waxoon na ne nañ ko delloo mais Supreme Court <laughs> moo ko delloo back to the Dakar fan la Ousmane di jaar bi nekk candidat. waa Fatou li nga wax yëpp dafay wane ni wax dëgg yàlla xam nga politique bu Sénégal te yaa ngi koy euh, yaa ngi yaa ngi topp yaa ngi suivre bu baax di mm-hmm. topp politique bu senegal te loolu mooy sa mm-hmm. parce que boo bëggee nekk euh, wax dëgg yàlla journaliste bu ñu ni respect euh, da ngay xam ni actuellement ci àdduna bi léegi amul benn réew bu dem moom kese lépp dañu ànd surtout day stick together comme di dit et que bi lu laal kenn ki day laal ki ci des mm. kon yow euh, li ngay wane nii rek ci ni ngay analyser politics bu Sénégal daf may wan ni yow ku xam li xew Sénégal la ni nga ko waxee nii ni nga ko describe noonu la amee mm-hmm. naa nag sama jàngat laa la siy wax ci nga wax léegi nag li nga xam moom laa la siy wax mooy mm-hmm. euh, ñoom xam nañ ni li nga xam ne moom la ñuy jëm ci Ousmane Sonko since 2021 dooroon na sax 19 2019 uh, foofu la dooroon mooy bii élection presidential election bi ñu génnoon. Mhm. Ousmane Sonko wane ci dooleem te boobu sax nit ñi toppaguñ ko comme ni mel nii boobu Ousmane amagul doole bi mu am doole nii senegal amu ko woon ci diaspora bi uh, uh, also parce que Ousmane boobu am na ñu ko toppoon. mais fesagul woon nii comme nii. Mm. ñoom nag biñ ko bëggee rey lañ def ay mistakes yu tax Ousmane am doole mooy ñëw di ko euh, di ko ko jiiñ lu nekk. ba noppi nag jiñ ko li gën a métti ñëpp mooy ne rapiste la. waaye léegi nag loolu bi ñu ko defee ba léegi ci loolu rek lañ nekk système bi parce que système bi it goes beyond Macky Sall. système bi dafa am comme ni ma la ko limale mm-hmm. a lim ci ay bitim réew. ay réew yu mel ni France ak euh, euh, United States. ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall pour mu téyal leen Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ñoom dañ ko ragal. Mhm. Macky Sall soo soo xoolee ni buy wax ci Ousmane Sonko da ngay xam daf ko ragal du ko tudd sax daf ko ragal mhm. parce que nit bu ragalee dara ba mu ëpp du ko ñemee tudd. daf ko ragal léegi nag noonu ma ko ragalee noonu la ko France ragalee noonu la ko euh, United States ragale boo ko waxee nit mën nañ la. Mhm. mais United States nan lay ragale benn nit non daf ko ragal xamal tax mu ragal ko. parce que géopolitique mooy doxee noonu. c'est-à-dire euh, political systems yi dañu connecté wu. Mhm. te Ousmane Sonko bu amee doole Sénégal daf leen di yàqal ñoom loolu mooy ragal bi. léegi nag loolu moo tax li ñuy jéem yëpp ñu koy jéem. maintenant nag euh, Ousmane Sonko li ñuy jéem ci moom man dama jàpp ni ba léegi ni amuñu ci ndam malgré de. Hmm, Euh, judicial decision judiciary decisions yi ngay wax yooyu yëpp nga xam ne yëpp xam nañ ni ay tappale moo ko lal parce que bu ñu xoolee Supreme Court bi man maa nga fa woon maa ngi woon Ziguinchor ci bi nga xam moom la juge euh, Judge Sabassi Faye lim lim décidé woon foofu nga xam ñëpp kontaanoon nañ ci euh, te loolu man jàpp naa ne moom mooy li am ba léegi leneen lañ fi defaat yëpp ay tappale la parce que judge boobu farul ak kenn mm-hmm. dafa déglu ñaari parties yëpp xam ni wax dëgg yàlla li waa Macky la di wax Euh, ak seen i euh, seen i lawyers li ñuy wax dara amu ci léegi mu jël décision mhm. wax ni moom li mu wax daal mooy ñii euh, li ñuy wax taxawul Ousmane Sonko nañ ko dugalaat pour mu bokk ci ñiy wote Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiche pour mu dem def parrainage loolu mu mu décide moom si Faye moom la ñëpp doon xaar moom Supreme Court mu def the same Supreme Court ñëw weddi boppam nan la weddee boppam mhm. 2018 euh, euh, dafa am ab candidate bu tudd Karim Wade nekkoon doomu Abdoulaye Wade fekk mi ngi euh, mi ngi woon ci réew naar yi à Doha dem Koweït mu mu mu foofu pour que mu dugg ci fichier électoral léegi bi mu ko defee ñu ñoom bi ñu xamee ni dugg na te yëguñu ko ñu dem dindi ko biñ ko dindee moom am ku nekk fii Sénégal koo xam ne Yaya Niang la tudd ah. Yaya Niang mm-hmm. bokku ci PDS seen parti boobu ñoom euh, ñoom ñoom ñoom Karim Wade ak waajuram bu góor Abdoulaye Wade former president of Sénégal léegi kooku dem Supreme Court ni leen dañu dindi euh, dafa dem d'abord dafa dem euh, tribunal bu Dakar the court of Dakar ni leen dañu bëgg ñu dugalaat Karim Wade ci ci biir liste bi ñooñ ni ko Karim Wade du fii lañ ko mën a àtte the the court uh, of Dakar cannot uh, judge this affair because he didn't register here cest mun ñu ko ñoom moom ñëwul mu bindoo fii. donc mun ñu ko fi àtte donc benn mbir a ngi noonu. te ñoom ñi ngi doon wax Ziguinchor bi mu bindoo moom Sonko mun ñu ko fa àtte. xool nga loolu. te fee dañ ne woon fi nga bindoo lañ la nga mun lañ la mën a àtte. ñoom biñ koy àtte Ziguinchor ñu noonu mun ñu ko fa atte mm-hmm. parce que foofu euh, Dakar lañ ko war a donc xam nga lool Uh, uh, they uh, they they create a problem. ñu ñew ñu ñew bi bi bi ko waxee lol mu dem Supreme Court mom yaaya ñaw bi mu demee Supreme Court Supreme Court jël décision ni fay nénal euh day dëggal day dëggal li judge bi wax que mënuñu ko atté Dakar parce que wu fa ba paré ni du wax benen tribunal benen court na wat. mu ni moom Supreme Court. mooy jël décision mu ni moom mooy jël décision bi léegi jeex na. Oh. waaw léegi kay loolu loolu rek doy na pour kon Ousmane Sonko fi ñu ko àttee Ziguinchor rek lañ ko mën a àttee te fañ ko fa àttee dañ ñu mën na duggaat pour nekk ci liste yi pour mën na nekk vote nekk candidate kon lépp leer na. Supreme Court def loo xam ne kenn mos ko gis. loolu moo tax avocat yi tamit dem déposé waat. Euh, ni nañ ko attewaat ci supreme court maanaam li ñuy tuddee euh, ni dab dabaatal ñu dab dabaatal atte bi xool la ciy rëq-rëq léegi bu ko defee ñu mm-hmm. review euh, décision bi te loolu bu ñu koy review ñi atte woon duñu ko fekk loolu ñu bëri xamuñu ko ah, supreme court su koy attewaat mm-hmm. Siré Ali Ba moomu ko atte woon ak ñim nekk ndooloon te kenn ci ñoom Aïssatou Diallo Ba nekk judge comme ñoom ñuy at yemul ci sayn dañ leen li ngeen atte du yoon Ousmane Sonko mënu leen ko tere nekkaat li si waa léegi loolu moo tax Ousmane Sonko ay avocat dem ne nañu ko seetaat nañu review li nga xam moom lañ àtte woon léegi te buñ koy defaat ñoom ñooñu ñëpp ay Aïssatou Diallo Ba ay ñoom Siré ak ñoom ñëpp ñu fa nekkoon ñoom ñëpp kenn du ko fekkewaat léegi yeneen euh, judges yi nekk foofu Supreme Court ci chambers yëpp ñoom ñooy toogaat nag léegi ñu toog xoolaat mbir mi lan moo ci am. moo tax fi mu toll mbir mu jaxasoo ndax am nga yaakaar ne dinañ ko seet balaa. dina hmm, sottaay waaw loolu la ñuy tiit li ñuy tiit daal mooy ñu yeex ko seet mais ñi ñu nee nañ buñ ko seete yàlla mun na ci def ndam mais nag bu ci amee ndam te fekk tëj nañ candidat euh, candidat si dootu amati njariñ mais leer na ma ni magistrat yu euh, euh, judges yu bëri ñu ngi foofu lii xew nii neexu leen. te président Macky nekkul mën a contrôle judge déedéet daf ci ñu am ñoo xam dañu am seen indépendance loolu moom mooy dëgg léegi nag loolu moo tax foofu tamit kenn xamagul nan lay demee mais Ousmane Sonko li mu def ak Ayib Daffé nga xam ne moom mooy euh, euh, représente Ousmane Sonko ci mbirum élection mm. dafa dem jël mu dem yóbbu ci fi nga xam ne fi la ñuy dugal alalu Sénégal ci ku bëgg a nekk candidat muy CDC mm. foofu képp koo xam ne da nga war a am looy jébbal nit même bu dul sax ci affaire élection mm. boo demee di ko jébbal moom da koy jël man mii di wax ak yow ki nga xam ni moom moo ma moo may moom moom laay rent këram. bi ñu demee ba jàppante bi ñu yokkee kër yi ba may fay leen yokk ba mu yàgg ñu wàññi euh, pa décision am ci nguur gi wax ne léegi wàññi nañ mu ne moom kenn du wàññi ma ne ko man xam naa samay droit. Mm-hmm. Euh, décret moo moo waxoon nanu def décret wàccawaat euh, mm-hmm. njëg yi. man li li li ma war a fay rek laay fay mu bañ a jël sama xaalis. laa def mhm. dama dem CDC bi ma jël xaalis bi ma dem euh, def déposit ba noppi dem euh, jël sama euh, sama avocat jox ko mu yónnee ko mu yónnee ko këyit bi ne ko léegi dàmbuj fay na la yow li nga doon bañ a jël léegi ma nga foofu demal jëli sa xaalis te bu koy jëli am na lu mu fay fay ci xaalis bi ma fay man <laughs> xam naa sama droit après daf ma woosa ne man nañ wut jàmm parce que xam na ne li muy def noonu man xam naa sama sama sama Euh, foofu nga xam ne CDC euh, euh, kenn du fa xool ndax li nga déposé baax na baaxul mm. kooku judge moo koy wax. Mm. Ayib Daffé li mu def mooy yoon d' abord damay tontuwaale ci li nga ma laaj. ni ma ñu toog a caag rek ñun Ousmane Sonko candidat la mais loolu moo lay wan ne Ousmane mu demee kan lay représente ah, Ousmane Sonko. kon ça di dire que Ousmane ñi doon wax naan est ce que Ousmane a wax ni. Bassirou Diomaye fay du candidat bi non Bassirou Diomaye fay candidat la. Mm-hmm. mais li wuute mooy Ousmane Sonko néewul Bassirou Diomaye fay moo koy replace. Oh. See, that's the difference. Is it a strategy? <laughs> yeah, normal parce que soo ko seqee koo xam ne daa bëri ay pex ay pax. Hmm. Macky sal daa bari pax de. moo tax booy xeex ak moom yow da ngay bari pax. Hmm. loolu moo tax Ousmane Sonko ubbi pax yu bëri. waaw Basirou Diomaye Faye candidat la waaye Ousmane Sonko candidat la Cheikh Tidiane Dieye candidat la Damboj candidat la ñu ngi toog nag wuure la. wuure la xamaguñ fu muy mujj maintenant nag ñi taxaw ni Ousmane Sonko nee na. Bassirou Diomaye Faye mooy candidat bi léegi bu Pastef loolu amul. loolu loolu moo amul. léegi nag dafa launch li nga xam moom mooy parrainage bu Bassirou Diomaye Faye wax ñeneen ñi xaar leen bu leen launch gum hmm. loolu rek def nit ñi dañu jaawale faatu parrainage ak candidature. it's not the same. It's not the same. <laughs> no ah. Ah, ah. it's not. the mm. same. donc Sonko musul wax ni du candidat. Mm. dafa wax ni na Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moo ko waxoon ne ko nekkal candidat. ne ko nañ ko parrainé. ne nañ ko parrainé full stop. full stop full stop. léegi nag loolu xam nga lu fa bëgg a wone. mooy comme ñoom ñu ngi téye fiche parrainage am pour bañ mu parrainé. parce que dañ doon bañ nit ñi gis dooleem. parce que international community bi su ñu gisee ni Sénégal mais it's like elections people are parading the guy. it's like there is a président wala wala léegi loolu lañ ko doon xañ nag loolu lañ bëggoon xañ Sonko bëgguñu mu génn fiche am ba ba ba ci cëppaandaw bi Sonko xam loolu mu bàyyi ba mu des three weeks tiir bu ndaw mu ñëw raw leen ñoom ñëpp ci pare parrainage te du moom de mais benn nit boobu bu bokk ci political party loolu doole la Sonko doon wane wan ko international community bi ne lii ñuy def yëpp contre man against me c'est parce que dañuy bañ man ma nekk candidat wante dama leen di won ne man. waxuma la man mais man sama ku topp ci man sax su ma waxee nañ ko pare ñëpp ñu pare na ko donc euh, so li ngay comprendre li ngay understand foofu mooy Sonko. dafa bëgg a wane dooleem. Mm-hmm. wante wane dooleem ci parenage mm-hmm. taxul ni dafa jël dooleem jox ko Bassirou Diomaye Faye moom Sonko candidat la la koy won mooy euh, Ayib dafe bi mu demee dépp euh, yóbbuwul xaalis pour Bassirou Diomaye. waxul parce que Bassirou Diomaye ki nga xam ne moom moo ko nekkal euh, mi ngi tudd Amadou Ba ah. xam nga bu doon euh, bassiro moom mooy candidat bu Sonko kon xaalis bi dañ koy jël jox ko euh, ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba bu ko defee léegi ñëpp xam ne ah Sonko leeg Amadou Ba la la jox te même loolu doyagul woon parce que ba léegi tëjaguñ ku bëgg a nekk candidat fii ba la fii fii ba tenth of décembre mun nga nekk candidat léegi décembre tenth boobu ñëwagul léegi nag donc Sonko ba léegi moom li mu wax mooy candidat la te man loolu la ma wax bi ma demee seeti foofu laa bëgg a ñëw dem nga seeti Sonko gis naa ne how is he doing waaw mi ngi ci jàmm mu ngi woon hunger strike uh, he was in the hospital people were concerned. Yeah. I'm a big fan of Usman Sonko loolu I just want to say it on record. I'm a Pastef member ñëpp xam nañ <laughs> ko. wax eh. naa ko ci télé wax eh, naa ko fu eh, nekk man so may judge man I don't support any politician. mais Usman Sonko mooy koo xam I I believe in his philosophy and I believe he's. dafa yee askani Senegambia askani Afrique. mais you you are pan-Africanist. I'm a big fan of eh, Ousmane. Eh, eh, how is he doing how damay waxtaan ci loolu sax ni yow bëri nga si ay morom ci mm. Afrique. ñoo xam ne dëkkuñu Sénégal dañuy dëkk Gambia wala Mali wala Burkina Faso ndaxte ñun dañuy am relationships ak ñu bëri. Mm-hmm. man dama xam ñoo xam ne samay xarit dañu nekk Mali wala yu nekk Burkina Faso wala Côte d'Ivoire. Eh, yu may woo di laaj fan la Ousmane toll. lan lay dund. Hmm. est-ce que am na ñu may woo sax di ma wax ne man waxal Ousmane na bàyyi hunger strike. donc eh, li ngay eh, li ngay understand ci loolu mooy. Hmm. li am solo mooy Ousmane nit ñi bëgg nañ ko. te ñi ko bëgg ñëpp ay panafricanistes lañ yow ci nga bokk am na ñeneen ñu ci bokk ñu bëri ñun fii man maa ngi nii dama bëgg succès Masra. ma dem Tchad. mais succès Masra fu ñu ko tegee coono man damay am coono. Mm-hmm. damay sonn comme may sonne bu ñu tegee Ousmane Sonko coono. donc man noonu laa bëggee Assimi Goïta noonu laa bëggee Ibrahima Traoré te xaw ma leen aw ma benn relationship ak ñoom mais dama leen bëgg. waaw donc eh, eh, li am solo mooy ñun ñëpp ay africans lañ. man mm-hmm. képp ku bëgg Afrique man def naa la ci sama xol Ousmane. loolu moo tax africains yi dañ ko bëgg du rek Sénégal Sénégal niñ ko bëggee noonu lañ ko bëggee ci yeneen réew Afrique yëpp donc Ousmane li muy xeex tamit du pour Sénégal kon hmm? loolu rek mu am solo parce que li muy xeex pour Afrique yëpp la parce que ñu bëgg eh, émancipation of African people mm-hmm. ñu demal suñu bopp réew yëpp jàmm am fa alal ji nekk ci suñu réew yi ñu jariñoo ko ñun ñun ñun waa Afrique te réew bu ci nekk li fa nekk ci alal suñu amee lead leader yu baax yoo xam ne jëluñu benn groupe bu ndaw. Mhm. ñu nekk fa di tibb alalu réew mi ak di bàyyi ay tubaab yu nekk ci yeneen réew ñu koy tibb réew ma kenn dootu fa toog di ndóol. Mhm. ku bëgg añ di nga añ ku bëgg reer di nga reer ku bëgg a takk soxna di nga takk soxna ñëpp nekk ci jàmm ku bëgg liggéey liggéey loolu Ousmane di dream loolu la africains yëpp bëgg loolu moo tax nit ñi bëgg ko ti euh, speech bi mu yoree loolu la wone léegi nag Ousmane comme ni nga ko waxee dem naa seeti ko. Mhm. Euh, daanaka uh, mën naa ne bi ma ko seetee ak léegi mi ngi tool matagul ñaari ñaari weeks uh, ndaxte mercredi uh, Wednesday bi ma demoon seeti ko mi ngi doog a ñëwaat Wednesday bi ma demoon seeti ko mi ngi doog a ñëwaat parce que moom Wednesday lay lay lay receive nit ñi waaw léegi bi ma demee d'abord li ma gën a neex mooy mun mën na nga mujj dugg parce que mm. dafa waroon na gis juróom-ñetti kilifa yoo xam ñoo ñëwoon pour seet si ko mun naa ci lim Habib Sy Cheikh Tidiane Dieye Diante Maimouna Bousso euh, euh, ak euh, Abbas Fall ñun ñooñu daal bu ma fàttee kenn ñun ñooñu la la wax ne ñoom la ñun ñun la bëgg a giseel ci gisee bu bu njëkk bi mm-hmm. boobu lay doog a door di ubbi parce que bi mu demee foofu ba léegi ubbiwul woon pour wax ak nit ñi waa këram ñoo ko doon gis mm-hmm. ay soxnaam ak ay doomam ak lawyers yi ñoom rek ñoom ñoo ko ñoo ko doon gis léegi nag bi mu ubbee nag mu ne ñun la bëgg a njëkk a gis mhm. nañ ñëw seet ko mu am lu ñu waxtaan ak moom bi nekk see mu ni mën naa mujj dugg loolu xam naa lu taxoon mu wax ko parce que mhm. man maa fa gën a yàgg te dañu waxtaan ba benn moment sax man maa ko wax euh, usmaan maa ngi dem nag mu ngi commencé yàgg daanaka suñu émission bi li ñu commencé waxtaan ak léegi mat na loolu ma ne ko Ousmane maa ngi dem ñu waxtaanee lu bëri hmm. ma déglu ko mu wax ma euh, foofu la ma Ousmane waxee ne moom mooy candidat bi donc man bima ko genné wax ko amna sax wa yu you understand no ma don wax parce que man duma ma waxantu dina dem tok ak Ousmane Sonko munu man ma ma dam dama launch parrainage bu Basirou Diomaye Fay munon na wax nañ wax euh, Abbas Fall mu launch parce que mom tam candidat la. munon na wax euh, Birame Souley munon na wax El Malik Ndiaye. mais man ma tan Basirou Diomaye Fay waxna na ma nak li tax mu tan ko pour mu launch bu njëkk mais loolu duma ci wax parce que kilifa. gu toll ni Ousmane Sonko doo dem toog ak moom lépp lu ngeen wax nga génne ko bëri na luñ foog loo xam waxuma ko même yow sa émission ma ko fi wax. <laughs> mais mun nga mais tuuti rek <laughs> donc du mun xam nga dama ah? seetaan dama seetaan am ñu ni. la wax Ousmane Sonko yëpp wax na ko ci télé la ñu wax lii ma wax ci mais yooyu du du lu am njëriñ. parce que ah. euh, c'est vrai amal na njëriñ nit ñi ndax bëggoon nañ xam Ousmane nu nu mu mel. Euh, yooyu laa mën a wax man yi ma mën a wax rek laa wax. Mm-hmm. mais Ousmane wax na ma am na daal lu ma tiitalee am na ku ne yaa ngi leen di tiital bu leen tiital parce que dama ne leen Ousmane li mu lal Macky Sall ak ñi mu àndal mënuñu ko laal wax la nag dama ne Ousmane. mi ma toogal man Damboj. Ah. li mu lal moom Macky Sall ak ñi mu àndal mënuñu ko laal li parce que booy laal dara da ngay xam fu mu ne. Hmm. lu rëy laa leen wax waaye dama ko junj rek waxuma ko Ousmane nag kilifa la. Ah. jiite opposition bi nekk kilifa goo xam ñëpp moom lañ gëm ni moom bu demee élection mooy win. waaw léegi nag réew bitim réew ci seen yoon wër ta nekk sax ñu ñëw di ruube dugg dugg ci suñu politique léegi nag moom kon bu ma toogee wax kilifa gu toll noonu mu wóolu ma wóolu goo xam ne lu bëri wax na ma ko mm-hmm. mais mënu ma génn di ko wax ci ay télévision mun ma dem euh, même su fekkente ni euh, kër Fatou laa dem ak lu kër gi neex neex tamit mun ma faa wax yooyu wante li ma mën a wax mën naa ko wax mën naa la wax ci Ousmane wax dëgg yàlla parce que loolu nit ñi bëgg nañ ko xam mooy Ousmane nan la taxawee Ousmane mi si naam damay wax ni euh, hunger strike bi laal na ko. Oh. loolu mooy dëgg aussi parce que nit ñi man bëgguma ëllëg euh, ñu ni kon Dame Mbodj li ma waxoon du dëgg. Hmm. Ousmane hunger strike bi laal na ko kon day weddi li Ismaïla Madior Fall waxoon moom former ministre of justice taxawoon kàcc ay kàcc yu leer. Mm-hmm. daan ni Ousmane Sonko hunger strike nekku ci. he is not going through hunger strike. lu woon loolu du woon dëgg. Ousmane Sonko hunger strike bu leer la def man bi ma demee loolu laa njëkk a seetlu ci moom parce que nag Ousmane xam naa ko. Mhm. dañu toog bëri na dañu wéet bëri na dañu wax téléphone bi bëri na man Ousmane dañuy toog des fois bi muy nekk ci biti dañ doon toog lu yàgg di wax téléphone. dama doon dem bureau hmm, ñëw na seet si ma euh, ginnaaw coow aji saar bi. bi mu génnee ci kaso bi. Euh, kon Ousmane li ma mën a wax daal mooy mu gisee am na lu dal sama xel mooy bàyyi na xiifal bi. bàyyi na hunger strike bi te loolu am na solo euh, euh, ñi ngi koy respect tamit ay rights am in prison loolu loolu am na ndaxte mm-hmm. wax dëgg yàlla fi mu nekk du hôtel ndaxte prison moom bu ñu la ci xasee jàpp prison doore amul foo xam ni euh, man fii ñu ma dalal si Gambie wax dëgg yàlla am naa fa Euh, fu fu baax fuñ ma dalal hmm. waaye ñu ma fa téye woon euh, fukki fan mënu maa wax ak nit ñi rek mu hmm. metti ci ma kon nit fi ñu la teg lu mu lu mu am comfortable comfortable du tee yow doo doo doo da nga soxla sa sa sa sa freedom mm-hmm. freedom boobu di dem di wax ak ñi nga bëgg a di dem fi nga bëgg a dem loolu lañ ko xañ wante fi mu nekk moom wax dëgg yàlla environnement bi baax na mm-hmm. boo ñëwee mu war la receive fi mu lay teg dina baax yow tamit fi mu fi ngay nga koy fekk baax na fi muy tëdd aussi gisuma teguma ci sama beut waye man comme ni ma waxee ma gisee damay xam. Mhm. wutal nañ ko space am bu baax euh, ben euh, yaad bu baax bo xamni ne na fa fexlu euh, mun na fa def sport mun na fa def donc lolu lolu mom wax deug yalla mo am mom ñing ngi koy ñu koy jox cëram parce que lepp ci Macky Sall am nee sax gëmewu ko mun a Ousmane Sonko te defu la dara. parce Ousmane defu ko dara lolu motax man conditions yi nek man munu neex waxna ko sabine toge ñu ko fi nga nek ni baxna mais man neexuma ndaxte yow buroo fi nekk parce que deful lu tax mu war fa nekk. dañ ko fa téye ci jaay doole. parce que dañu sant ni bu demee élection day win loolu rek la moo tax ñu teg ko doole euh, euh, kàcc seen kàcc yi dem wut xale bu jigéen jaarale ko ci xale bu jigéen bi waxal boppam ne man kii ñëw na mais defuma dara. Mm-hmm. mu leer mi moom nday mbill gi moom ci boppam moo ni Ousmane defu ko dara. mais wax dëgg yàlla bu ñu bëggee tëj kooku naan euh, corruption of the youth ak seen yëfu tàppale yooyu waxu caaxaan la donc def nañ euh, lu leen neex dem tëj doomu jàmbur kon li ma mën a wax daal Ousmane li ma wax ci lu ma mën a wax parce que comme ni ma ko waxee mun ma wax lépp mais Ousmane nee na ma man maay candidat bi parce que defuma luy tee ma nekk candidat euh, te maa ngi lay wax ni na nga le les nit ñi nañu focus ci élection ci élection bi waaw Euh, li ñuy euh, jéem ni yëpp seen waxi bopp la rek mais bu ñu nee ba ca cëppaandaw ba lépp dina leer xam nga keroog dafa am ku ni ma mais Bassirou Diomaye Faye moom est-ce que mun na nekk candidat moom Bassirou Diomaye mi ngi ñu téye un wa euh, benn ñaareel bi Pastef dañ ko dissolve léegi bu ñu dissolve Pastef ba noppi Bassirou Diomaye Faye moom mi ngi mi ngi ci kaso bi ñu téye ko kon munul nekk candidat ma ne ko mais bu doon dissolve bi ak téye bi dafa doy. Mm-hmm. pour doo nekk candidat kon kay jëruñuy wax Bassirou Diomaye Faye kon nañ wax Sonko du candidat. parce que Sonko mooy jiite Pastef te dissolve nañ Pastef. yes Sonko mooy jiite Pastef te mi ngi ñu téye ci. kaso bi mm-hmm. bu doon ñaari yooyu dafa doy. kon dootu ñu dem ci ay kóot ak duñ ko aaye parrainage doot duñ ko aaye parrainage duñ koy bàyyi mu def lépp ndax mënul nekk candidat mën leen mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye kenn mënu ko tere nekk candidat loolu waxu caaxaan la. te Macky Sall wóoluwul Euh, euh, le conseil constitutionnel. mais changé na leen. waaw changé na leen mais wóoluwu leen. ba tey ba léegi dafa ah, ragal su ko wóoroon ne bu yeggee foofu ca cappaandaw ba Sonko bu fa yeggee dañ koy euh, tege nee du nekk candidat kon yii yëpp muy def du ko def da koy bàyyi muy call call di def yi mbiram ba ca fin ba rek mu gàntal candidat si yaa ne mënul bokk Macky Sall xam na ni. le the constitutional court mën na ñëw ba ci last minute parce que ñoom xam nañ ni euh, bu ñu demee ba euh, constitutional court bi war a decide mhm. benn weer mooy dese Macky Sall ak genn wàll ci ñi ma fa xam man xam naa fa ñaari judge yoo xam ni ci ñi mu soppi lañ bokk te nag da leen soppi mais foofu dañ fa a nekk euh, also xam nga ñu bari loolu la ñu fàtte dafa soppi mais soppi tamit amna ci ñimu mu sopp ñoom dañ fa wara nek parce que constitutional court bi li ci ëpp moy ñi nga jaar nañ ci court ci ndaw yëpp ba dem ci bu mag bi ba fofu rek bu ñuy waja retire. Mm-hmm. dañ leen fay yóbbu donc dañuy bëgg nga am experience, légui ñi fa nek loolu ñen ñi mënañ ci am luñ ci wax mais amna ñu fa nek ñom dañ fa wara nek té man dama ci xam ñaar ñom bëgguma tuddu seen tour mm-hmm. ñu fa wara nek nekk fa ñu boole waale leen ci ci seven euh, judges yi nga ñoom ñooy decide mm-hmm. te man xam naa ne seen carrière dara àdduna jaral leen ñu ko yàq pour bëgg lu neex Macky Sall ci ñaari weer yu leen dese Macky Sall dem am na ci koo xam ne sax bu ñu euh, defee élection bi février 2004 and 24 euh, donc moom day dem day dem day retire moom moom at yi mu toll mom buñu election baree ba par rek bu ci tegee fukki fan ak juroom wala ñaar fukki fan bu ma joomul day retire mm-hmm. koku lan moko ko jaral muy wut lu neex Macky Sall wala muy wut alal parce que nima ko xamé alal ñoru ko amna mm-hmm. teranga, na parce que court yi mu jité bari na ñom liñ leen di fay baxna amna mm-hmm. am bu lew bu mu mom kon japp na ni nima ko gisee ak ni muy dundee may na ko njabot njabotam amnañ teranga mom amna teranga man gisuma ci àdduna luy war a tax muy nangu ñuy bind turam ci taarixu Sénégal ak taarixu Afrique ñoo xam ne dañ leen di lim ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ba fitna pare euh, yeewu Sénégal wala Sénégal waroon na dugg ci ay coppite yu bees yu amal njëriñ askan wi ëllëg ñu koy xase doomam ëllëg ñu koy xase xase sëtam man jàpp naa ni euh, jët yooyu nga xam ñoo nekk Euh, ci court bi bu nga xam moom mooy decide euh, ci élection wax kuy nekk candidat ak ku ko dul nekk Macky Sall li tax mu ragal leen mooy fa ñuy jëlee dogal day jege lool day fekk lépp jeex na woote rek moo des. Hmm. léegi nag bu boobaa Macky Sall dafa tiit ni dañu nar a wax yoon dañu nar a wax yoon pour ragal ragal askan wi ŋàññi leen. ragal seen ëllëg pour seeni doom parce que même fekkente ni yow am nga sa kaaraange ëllëg dara la wóoru la ci ni sa doom dina ko am dara wóoru lañ sa soxna dina ko am dara wóoru la ko ni sa boroom kër dina ko am bu dee jigéen nga dara wóoru la ni ëllëg sa sët dina ko am parce que réew day dox hmm. parce que kenn xalaatul woon xoolal Abdou Diouf li mu doon def Abdoulaye Wade lu mat ñaar fukki at ak juróom benn bu fekkoon ten dañ dafa defoon Abdoulaye Wade lu garaaw a garaaw comme li ñuy def Sonko tey bi Abdoulaye Wade jëlee nguur gi naam Abdou Diouf dem na moog soxnaam hmm. mais Abdou Diouf ay doomam a ngi Sénégal. kon Ablaye Wade mënoon naa fayu. Abdou Diouf ay doomam euh, doomu magam ñu ngi Sénégal ay jarbaata mag lu nekk ñu ngi Louga sama dëkk. Mm-hmm. donc kon euh, nit da ngay sóor ëllëg. donc jërëjëf yooyu man ah. jàpp naa ni bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba yuuxu mën na jëpp fuñ ko foogewul donc loolu moo tax nag Macky Sall ragal lool moo tax Macky Sall buggul dossier Ousmane Sonko yegg. ba ci constitutional court bi nga moom mooy wax nekk candidat ak ku dul nekk moo tax jaay dooleem bi metti bu bëggul mu yegg foofu gisoo leen dal ak ayib dafe bu ñu demee ci ayib dafe nii moom day ñëw def dépositam pour seeti euh, millions yi nga xam ne moom la ñu wax ni pour nga nekk candidat fokk nga joxe ko léegi moom bi mu demee def déposit ba pare xoolal liñ jëm si ki yore seen kàddu ñoom euh, kees bi mooy ñi xam si mooy CDC nga xam fa la ñuy euh, yóbbu xaalis pour lépp lu jëm ci mbirum nguur gi mais ñoom seen rôle c'est euh, euh, they they don't have the power to decide. ñoom du ñoom ñooy décider ñoom ñoom ñoom li leen wax rek mooy jël leen la ngeen jël su baaxul ka ko war a decide da koy decide mais non li ñu jël baaxul wante du ñoom ñooy wax ñoom dañ leen jëlloo rek mi ngi mel ni comme li ñu doon wax direction générale des élections DGE that body is in charge of taking uh, the papers and submitting papers full stop. it doesn't decide ku baax ak ku baaxul ak ku war a dugg ak ku war a dugg même même ku nekk feneen koo xam ne kiiwul sax moom yoonam nekku ci moom dafa war a ñëw rek même koo xam ne nekkul ci liste yi. Mm-hmm. mu dem di déposit moom da koy jël. léegi nag bu ñu demee ña koy seet nag ñooy wax ne ah jël na waaye nag waru cee bokk. fii tamit li ñu doon xaar mooy ñu jël ko ci ayib dafe. léegi bu ñu demee ba conseil constitutionnel. léegi euh, euh, code bi mooy decide léegi su gisee ni waru ko woon a euh, jël wala war na koo jël parce que ñoom xamuñu ni ayib mun ñu ko tee jël na ko ba pare d'abord loolu bëgg naa res bëgg naa tamit waa Pastef ngeen dal mm-hmm. ngeen dal xam ni seen tappale yii du jàll ayib dafe dégg naa ku ni sànq est-ce que takkul woon meles xam nga luy meles waaw pour bu la kenn gis. déedéet voilà pour bu la kenn gis. waaw lay meles maanaam boo ñëwee ci fenn. da ngay dugg si ba génn te duñ la xam. waaw duñ xam ne yow la. Ah, am na ku ne est ce que ay deful lool. daa takk meles. man na takk na meles takkul meles dugg na fa jox na leen fanweeri millions yi jox nañ ko kayit bi wane ni joxe na fan fanweeri million yi tappale boobu ma dégg ñu koy wax naan non fii ak ñetti fan dañ ko war a jox beneen këyit. muy wane ne de loolu ay waxi kasaaw kasaaw la conseil constitutionnel soxlawul loolu xam nga lu mu soxla. mooy kayit bi wane ne fay nga rek kayit bi wane ne def nga déposit bi kayit bi mi nga mi nga dafe beneen bi loolu sax bëgguma ko wax parce que ñun sunu stratégie. Euh, loolu moo tax. Euh, mu ñu wax lépp is this a sign Ousmane Sonko barki démba ma sama benn xarit dañ doon wax ak sama rakk sama rakk moom beneen lii la ñu ne euh, Ousmane Sonko all the time dafa am he always. there's always a chance mm-hmm. because buñ doon dem the Supreme Court bi dañ ne fii moom buñ casser décision bi rek he's done permanently but ñu delloo go back to the court now if he goes back to the Supreme Court they are not going to decide on the judge uh, Supreme um, Ziguinchor's judge decision they are going to decide on the Supreme Court ruling ndax jaar na yoon ndax jaarut yoon mm-hmm. su boobaa boobu meet na ko yoon he's always dafa am porox ndoolu saa yu ne do you think that's a sign? I mean, is that a sign? Sonko. Can you tell ba fii. Mm-hmm. kenn mënu ko tere nekk candidat. ba fii ñu toll nii. Ousmane Sonko candidat la. loolu ñoom xam nañ ko xam nañ ne euh, fii ñu toll nii. Uh-huh. Euh, Ousmane Sonko dafa nekk candidat bu leer boo xam ne seen tappale yi mënu ko te jàll. Mm-hmm. loolu moo tax comme ni nga ko waxee ñoom bëgguñu constitutional court bi am euh, fi nga xam ne fi lañ mën a sukkandiku pour jox leen. pour pour jox Ousmane Sonko këyitam lool moo tax ñu ragal dañu ragal. Mhm. mais euh, bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba constitutional court du ñu ay dof. Mhm. d' abord ay judges la ñu nekk Sénégal di xam li fi xew. beneen bi mooy Ousmane Sonko li mu soxla. Mhm. période bii ñu nekk nii at this time nit ñi dañu defa ne court bi final decision bi lay teg mais li xew ni lawyers yu Sonko yéen war a def ñi ngi koy def. bu ñu ba ca cëppaandaw ba constitutional court bi du ñu yëgu ma woon nangam parce que lépp lu xew. lu ñu teg Ousmane Sonko ci lu jaarul yoon ñi war a yóbbu loolu ca ña war a atte atte mujj ba ñu ngi koy yóbbu maanaam même ba ci li xew nii mhm. bu ñu demee ci li ma xam ci expérience du lu ma toog waxtaan ak waa Pastef mais xam naan duñu ay dof mhm. maanaam bu ay dafe demee déposé def dépositu euh, fanweeri million yi nga xam ne ku nekk candidat foog nga def déposit bi waaw léegi su ko defee léegi ñoom ñu ni ñu wax ci seen communication ni delloo nañ ko euh, chèque bi waa léegi bu ñu ko ko delloo Euh, loolu kay day wane ne kon ñoom ñoo ko bëggul a jël jet bi li mu soxla mooy est-ce que Ousmane déposite na fanweeri millions yi léegi na bu dee am na ka ko war a def te loolu du rôlam parce que jet bi xam na lool du rôlam hmm. the rôle of euh, the decision kooku ci jet bi la nekk nekku ci ñooñu waa CDC donc jet bi dina mën bu boobaa ni mais yéen wax ngeen dëgg joxu leen ko euh, attestation certificate bi ngeen di wax ne moom den ko ci waroon dolli joxu leen ko waaye nangu ngeen ñëw na déposit fanweeri million yi kon yéen amu leen woon benn right pour bañ bañ ko jël lam jël ngeen ko léegi ba pare ni da ngeen koy delloo du yéen ay wax ndax dañ ko ko war a delloo parce que war a delloo bi loolu jat loolu jat moo koy decide wala wala xam nga fanweeri millions yi ñu bëri li ñu mooy du looy ñàkk xam nga fanweeri millions pour lan la. Mm-hmm. comme neen kay ne ko ni mu tudd déposit la déposit la xam nga lu tax. dañuy bañ ay candidat xuusmaa ñàpp mhm. xaw ma ndax xam nga leen candidat xuusmaa ñàpp dañuy bañ ay candidat xuusmaa ñapp dem jëli fale fanweeri million rek ñëw bokk ñëw bokk léegi dañuy bëgg képp kuy nekk candidat nga am doole moo tax fanweeri million yi pour ñu delloo la ko bu élection bi jàllee képp ku am limu mu juróomi nit ci téeméer bu woote moom la ñuy wax five percent five percent of the voters bu dee am nga ko mhm. dañ la koy delloo waaw dañ koy delloo. léegi nag koo xam ne da nga am lim bi wote lu yées. Mm-hmm. juróomi nit ci téeméer bu wote. nga am ci lu yées juróomi nit kenn du la delloo sa fanweeri million. Ah, oh, lo loolu moo tax. léegi nag léegi judge bi mooy di décide ci loolu mooy wax élection bi jàll na constitutional code bi ñuy wax ni moom mooy validate mooy wax tel candidat am na nangami baat. Mm-hmm. am na percentage sangam. Euh, candidate bii tamit am na nangami baat am na peut sangam léegi nag bu paree nag kon ci këyit boobu ci la ñuy sukkandiku. Mhm. pour dem. Mhm. delloo ñenn ñi. Mhm. seen fanweeri million. ak ñeneen ñun leen ah ñoo ngi jégalu waaye ñàkk ngeen seen fanweeri million ndaxte yéen da a demoon di xëccoo te ñi ànd ak yéen euh, jox leen pour ci gàttal boo jëlee élection bi amoon 2019 euh, candidate yi jotaatoon seen xaalis. ñett lañ juróom lañ woon ñaar ñi jotaatuñ seen fanwe seen xaalis eh, ñett ñi ñoo jot seen xaalis muy eh, Macky Sall moo jotaat xaalisam ak eh, Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ñoom ñett rek ñoo jotaat seen xaalis yeneen ñaar yi muy Madické Niang ak Issa Sall mi moo nekkoon candidat bu PUR ak Madické Niang ñoom ñaar jotaatuñ seen xaalis parce que mataluñ lim bi donc ku ci nekk da nga am lu la yoon may kon Ayib Daffé comme dugg fa Mhm. xaw ma daa takk meles xaw ma takkul meles mais dugg na fa <laughs> ba jox leen fanweeri million yi ba jël nañ ko ba defal nañ ko këyit buy wane ni ayib dafe déposite na fanweeri millions yi wax ji jeex na Pastef du leen faale Ousmane Sonko du leen faale Macky Sall nag buy mere na mere boppam ak nitam yooyu nga xam ñoom mais mais ki fa nekkoon jël fanweeri millions aussi mun woon bañ a jël xaalis bi parce que loolu ko yoon wax caisse de dépôt et de consignation man su ma jàppanteeg nit. Mhm. koo xam dama ko war a jox xaalis mu bañ ko jël. man su ma demee euh, outil huissier huissier bi dem yóbbul ma xaalis bi su ko yóbboo loi bi daf ko tënk moom CDC mënu ko bañ jël. da koy jël maintenant nag bu ko jëlee pare du ca defagun dara léegi li tax mu ko fay jëlee nag. li tax mu mën ko faa jëlee. Mhm. ab judge moo koy décide. moo man bi ma defee loolu ba pare. Mhm. xam nga dama waxoon naa la sama exemple man dal na ma. dama jàppante ki nga ma moo ma rent house léegi bi ma demee ma rent house ba pare léegi ñu wàññi mu ne moom du wàññi. ma ne ko mm-hmm. déet réew mi nag mi yoon la. Mm-hmm. comme gouvernement bi dafa wax ne dañu wàññi euh, rent bi fépp léegi man euh, nangam la war a wàññeeku ci boor bi ma dëkke parce que boor bi nekk dañu waxoon ñaata lay wàññeeku mu ne moom du ko apply ma ne ko nag man dama koy apply léegi mu bañ a jël ni lépp lay jël ma ne ko doo jël lépp dama ciy dindi. leen ma wàññil ah. mu bañ ñu jàppante bi ma ko yóbboo moom daf ma yóbbu ci yoon bi ma yóbboo ci yoon maa ngi moom ñu taxaw devant judge bi judge bi ni Dame Mbodj moo ne ci dëgg mhm. defar këyitam léegi nag kayit boobu la jël mom daal di dem nag euh, jëli xaalisam bu demee fay parce que comme daa def yëfu tappale bu demee foofu ci kees bi kees bi naan ko léegi xaalis day wàññeeku waaw léegi bi mhm. fii tamit kees bi noonu lay demee maanaam kees bi amoo droit moom mu ñëw ni euh, dañuy déposite ayib dafe ni day déposite ñu bañ amul maintenant nag bu ñu ko waree delloo xaalis bi du CDC moo koy delloo déedéet day am fu mu judge bi mooy wax ni ci këyit yi ma jot Ousmane Sonko dem na déposit waaye déposit bi baaxul. mais du moom moo koy décide loolu moo tam don administration xam nga looy comprendre. Macky Sall dafa jël administration bi di xeex Sonko administration seen yoon nekku ci. gis nga muy muy CDC. Mm. muy daaf DAF mooy fi ñuy dugalaatee mooy ñu yore liste eh, électorale. vo vote vote voteuse euh, euh, euh, yi. Sénat ak DG ñoom ñëpp administration foofu laa bëgg a ñëw daan day before the Supreme Court judgment bi ay dama la déglu si benn vidéo fi ngay wax Sirisi president of the Supreme Court papaam lim fi defoon bi nga xam ne beneen président bëggoon na use the system pour make sure ne Ablaye Wade bu mu bokk ci election bi you mm-hmm. reminded him that Um, ma toog ak suma benn xarit ndeysaan sa big fan Ablaye Alaaji Ngom xam naa nu mu ngi seetaan moom mooy di um, uh, managing director moom moom moom Lotto Gaming Gambia betting company bu mag fii si réew mi mu nekk sa fan bu mag. Ah, maa ngi koy nuyu maa big fan mu ngi seetaan right now. <laughs> maa ngi koy um, toog di waxtaan uh, mu ma. man gëm naa ne Supreme Court dinañ dinañ rule in favor Sonko ma ne ko lu tax mu ne est-ce que déglu nga Dambouj li mu wax li mu waxal euh, Supreme Court président bi ne ko sa papa moo fi defoon histoire bi da nga war a répliquer sa papa lu fi defoon ma ne ko eh daam daf koy daf koy daf koy daf lii rek daf ko nekk di amee di jat rek pour waa ji woon ko ne yow sa papa def na fi mun nga fee def lu ko gën a raw mm-hmm. mais di nga gis ne ak loolu noonu yëpp kooku papaam defoon na loolu mu nekkoon histoire boo xam ne kenn mënu koo far si si si histoire Sénégal mais the way the institutions in Sénégal are being used and it's everywhere in Africa présidence yi ni ñoo use institutions yi and Sénégal leena loo xam ne xamee nañ ko seen institutions yi they very strong di especially the judiciary waaye dafa mel ni léegi ah, luñ gis si système eh, si kooti sonko bi For me, yes they are very strong judges ku mel ni Sabasy Faye ak ñeneen ak even the prosecutor prosecutor mm-hmm. taxaw si mm-hmm. kanam Supreme mm-hmm. Court ne eh kii delloo leen ko droit am yi dafa war a bokk gis nañ ko bi uh, George Aliou Ndiaye tam di rule this another prosecutor the lady also came and said delloo leen ko ay droit am na ñoo xam ne ñu ngi bi they believe in the law and ñu ngi ko practice but the majority in the system da ngaa gis ne the presidents are using the institution te loolu morreu Senegal. Are you worried, me? And Sonko is doing every time de expose that corruption in the system because saa yu ko xoolee rek daf test système all the time mu test the system, di want ne gis ngeen fii lii euh, constitutional court njaga that njaga guy si everybody is saying ne this is this all the constitutional lawyers in Sénégal ñu ngi laa wax lii so soo demee si court bi gis so it shows, it's exposing the institutions. Are you worried, ne? This entire uh, Usman Sonko issue, ak is going to expose the Senegalese institutions, how weak it has become now because they're just working for one single person, that's President Macky Sall. waaw ah, dëgg la loolu moom wax dëgg yàlla daanaka li ma ci mën euh, exactly non la deme. Sénégal dañu mës a naw. Sénégal dafa nekkoon benn strong democracy ci sub-région bi. Mm-hmm. fii bu ñu doon wax démocratie Sénégal lañ doon wax ni moom mooy euh, moom mooy moom mooy modèle bi donc euh, loolu la ñëpp xam mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla loolu moo fi am ci président yi fi jaar yëpp mm-hmm. parce que li muy def nii Sonko moom Macky Sall su ko Ablaye Wade defoon mais du mu nekk candidat mm-hmm. parce que Macky Sall amul woon li Sonko am parce que Sonko li mu am mooy population dañ ko bëgg xale yi dañ ko bëgg mag ñi dañ ko bëgg euh, diaspora bi dañ ko bëgg mhm. te loolu Macky Sall amu ko woon Macky Sall amul woon benn euh, doole bu nekk ci ginnaawam Ablaye Wade su xamoon ni day gagné mënoon na ko jaay doole te du mujj fenn du mujj fenn parce que moom amul woon sax ñu ko xeexal da doon ko jël rek te ci kaso bi mbedd yi sax kenn du manifester mhm. du am benn démonstration in the streets doo am dara mais Macky Sall dañ ko bàyyi mu nekk candidat parce que démocratie noonu la doon doxee Sénégal léegi nag bi mu ñëwee ba léegi loolu la nërmeelal Sénégal kenn xàmmeetu ko lépp daanu lépp li baaxoon ñu nawee ñu ko lépp nërmeelu na lépp liy état de droit nga xam ni moom lañ doon wax ni Sénégal lépp loo xam ni euh, réew yu développé yi ñu ngi koy def ñun foofu suñu réew daf dafa am euh, unfortunately euh, Macky Sall wàcce na lépp ba zéro comme ni ko xale yi di waxee wax dëgg yàlla da ngay am gàcce ci li xew suñu réew administration bi yàq nañ ko def ci politique léegi ku ñuy jox ndombay tànk c'est parce que yow da ngay ànd moom mu jox la boo àndul ak moom du la jox ku munul wi ñaar loxoom ni ko defal ma du la bàyyi nga def ko euh, fi nga xam ne moom la euh, justice bi nga xam si moom mooy réew parce que réew bu amul justice du réew réew pour mu même investors yi pour ñu mun a ñëw sa réew dañuy xam ne justice bi strong parce que su fekkee justice bi strongul ba nga xam ne mun nga fa dem invest sa xaalis ba pare ñu jaay la doole nangu sa xaalis nga dem nërmeelu sa compagnie yàqu mais kan mooy jël xaalisam di euh, di take risque comme ça di dem ci réewu jàmbur yu mel noonu duñ ko def loolu moo tax bu justice bu strong day participate in the economy parce que bu justice bi amee doole. économie mhm. bi day am doole ndaxte réew yëpp dañuy ñemee ñëw gis nga laws yi. Mhm. c'est que laws dafa strong ba nga xam ni président bi ak ay ministres am ak ak ku mu doon munul koy munul munul divert justice bi di leen dugal ci loo xam du yoon. day tax investisseurs dina wu rew ba baxna hmm. ku ci nek da ngay jël sa alal nga def kon Senegal bor boko meuna jëlé Macky Sall daf ko wàcce. ba lepp li nga xamni mom lañu nayo won wax ni lool mo doon bax baxu senegal ñepp di ñew di jang si senegal ci sunu système loolu actuellement moo melu mais euh, yaakar bi juddu moy Ousmane Sonko limu bëgg def bu ko defee lepp inshallah buñ ko denké réew dina ko jaaralewaat yoon Sénégal nekkaat réew ñu dooleelaat justice bi dooleelaat économie bi doolaa dooleelaat euh, euh, njàng mi dooleelaat paj mi li nga xam muy tax ñuy wax réew yëpp ñu tegaat ko ba nga xam ni moom bu xësee nekk fii président ba dem keneen dootu ko mën a soppi loolu lañ loolu la Séné loolu Sénégal yëpp topp ci ginnaaw Ousmane Sonko maintenant nag euh, li nga wax noonu ci judge Euh, Siré Aliba. li ma def bi ñu demee ba am si moom la ñu war a xëy àtte. Hmm. ñëpp gis déclaration bi ma def boo xam ni wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko euh, mu doon euh, lu lu foor loo xam ne Sénégal gépp dañu wax ni bu doon wax dëgg yàlla moom déglu na la dina taxaw fi waajuramu góor taxawoon parce que ñun bi ñuy nekk Sénégal ay tout tànk dañu amoon leader wax naa la ko sànq benn leader bu ñu bëggoon muy Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ñun Abdoulaye Wade bu ñu ko daan woo koot. Euh, dañ doon bàyyi suñu jàng dem nekk ci mbedd yi di ko xaar wala ñu dem këram point point e ñu dem jëli ko ànd ak moom di ko gunge ba koot loolu lañ ko doon defal boobu man maay nekk euh, euh, yan yi maay nekkoon élève student en high school bi ci des maa ngi woon university di doog a doog a commencé jàng ni university biñ koy woo dañ daan dem ñun ñëpp maa ngi fàttaliku élection bu 1988 bi élection bi amee ñun sunu génération man 1888 boobu mënu ma wote aw ma woon aw ma woon aw ma woon at ah, yu ma yu ma may ma mun ma mun a dem vote mhm. wante dañ ko bëggoon comme ni xale yi mel ci Sonko dañ doon taxaw di xeex ñun boobu ñun élection bi mu jàllee ñu gis ni Ablaye Wade ñàkk na élection ñun ñoo dëbb dëkk bi ñun ñoo dem dëbb dëkk bi mhm. ñoo dem toj rajaxe dëkk bi yëpp ñu rajaxe ko rajaxe Dakar rajaxe Thiès rajaxe fépp léegi nag bi ñu rajaxee dëkk bi léegi Abdou Diouf woo Ablaye Wade. Mhm. woo ko ci cote bi nga xam si moo nekk ci xoolu Ndakaaru moom moo nekk sax ci wetu prison bi Sonko nekk. tey mhm. prison bi fi Sonko nekk. waaw cote bi foofu la nekkoon ci wetu prison bi ñoo dend. prison boobu lañ lañ lañ lañ defoon police ci yëpp ñu génn leen ak ak gendarme yëpp ñu génn leen ci mbedd mi ñu dem jëlee Ablaye Wade bi ñu ñëwee 1988 1988 Senghor euh, du moins Abdou Diouf ni euh, cote bi. ci ki nga xam ne moo ko fa nekkal parce que boobu euh, ki nga xam ne tey moom la ñuy tuddee agent judiciaire de l' état parce que code bi boobu tuddul woon supreme court. boobu mi ngi tuddoon conseil d' état boobu noonu la tuddoon. ki nga xam ne commissaire du gouvernement la tuddoon nga xam moo fay nekkal nguur gi. nga xam mm-hmm. tey mom la ñuy wax agent judiciaire de l' état. Mm-hmm. léegi moom lañ moom la nguur gi wax ne ko boo demee waxal ne nañu daan Ablaye Wade daan boo xam ne dootul musa doon candidat ci Sénégal. nañ ko daan daan boo xam ne jeexal na ci nguur ba Abdou Diouf tam boobu 1988 euh, dafa leeroon ni Ablaye Wade mi ngi waaj jël nguur gi. léegi nga boobu élection boobu jaarul yoon. dañu mm. rig élection ñun loolu lañ gëmoon moo tax ñu dëbb dëkk bi dañu gëm ni jaarul yoon parce que su jaarul yoon Ablaye Wade mooy gagné. fépp Ablaye Wade lañ àndaloon ba noppi ñu dem élection Ablaye Wade ñàkk élection ñu dem xeex ñun ñoo suñ ñu nu mag ak ñun ñu nekkoon ay xale nga xam ne ñun ay tout tànk la ñu woon ñii am ay 15 ans 16 ans uh, 15 years old 16 years old 17. Yeah. 20 25 24 genera generation boobu la. Mm. ñoom ñoo taxaw xeex nekk ci ginnaaw Ablaye Wade xeexal ko nekk ci mbedd yi di taal ay oto di def lu di dëbb dëkk bi ba Abdou Diouf xamatul nu muy def ba mu tiit mu jàpp Ablaye Wade bi ko jàppee mu ni code bi nañ ko daan daan boo xam ne dootul musa doon candidate ci senegal mm. boobu ki nga mooy jiite code bi mi ngi tudd uh, mi ngi tudd Ali Sireba Ali. siire Ba moom ak kii dañu wëlbati rek tur bi. maanaam kii de papa ji dafa tudd Ali Siré Ba. kii doom ji doon àtte euh, fukki fan ak juróom-ñaar Sonko ci cour Supreme Court moom moo tudd Siré Ali Ba. Oh. noonu la demee léegi nag moom euh, Ali Siré Ba nga xam moo doon jiite liñ mën a tudde tey Supreme Court ci jamono jooju. waaw 1988 mu ne Abdou Diouf man du ma mus a daan Ablaye Wade. loo xam ne dootul mus a nekk candidat dinaa ko téye nag dinaa ko daan loo xam naa ko téye waaye nag sénégalais yi moom lañ bëgg xale yi ñu ngi topp ci ginnaawam man duma ma jël décision boobu di ko daan ba dootul mun nekk candidat parce que boobu liñ li Abdou Diouf bëggoon mooy 1993 five years later mm-hmm. c'est-à-dire 1998 la woon léegi 1993 donc loom lañ waroon defaat beneen élection boobu la Abdou Diouf jàppoon ne Ablaye Wade day win mm. léegi moo tax mu bañoon mu nekk candidat 1993 léegi jaj bi may ko loolu ni ko man dinaa ko tëj ba dëkk bi dal loolu am na solo waaye nag mënuma ko tere nekk candidat waxte loolu beneen mbir la ki peuple bi yëpp bëgg te boobu damay wax man ne sonko sonko ni ko nit ñi bëggee bëggee wuñ ko woon yi ni ñu bëggee sonko ñun suñu génération ñun bëggee wuñu woon noonu euh, Abdoulaye Wade déedéet àggul woon foofu bëggoon nañ ko ndaxte boobu ñun not not uh, uh, our dream was da ñu bëggoon vraiment Afrique mu change te gisoon nañ Ablaye Wade mën na ko change te man sax jàpp naa ne boobu juumoon nañ ñun suñu génération xam nga dañ juumoon mm-hmm. sànq dama la wax ne la système bi Ablaye Wade ci la bokk ci la bokkoon mais ñoom boobu dañ doon xëccoo ci biir système bi mais ñun mun ñu ko woon gis système bi ñoo doon xëccoo boobu Abdou Diouf ak ñoo bokk système li la koy woon bi Ablaye Wade jëlee nguur gi en 2000 France dafa kontaan parce que Ablaye Wade ak Abdou Diouf mburu foofu ko fëriñ wante nag ñun suñu génération xam lu ñu gisoon rek mooy Ablaye Wade ak soppi bëgg jële fi Abdou Diouf yàgg na fi moom ak Senghor ñu ñu ñu kontaan daal bëgg mu jóge fi mais boobu ay xale lañ xëy na amuñu woon xam-xam bu ñu mayoon ñu xam ni Ablaye Wade soreewul ak Abdou Diouf waaye ñun dañu bëggoon dindi Abdou Diouf rek pour change rek pour change na am rek maintenant nag bii nag li ci wuute mooy guleet ku bokkul ci système bi taxaw ne man dama bëgg a jiite réew loolu moo tax moo tax xeex bi ñu koy xeex gën a tar su ngeen seetee même Ablaye Wade moom lay won ci système bi la bok mhm. part partem political partem mi ngi and ak Macky Sall ñuy xex Sonko. te pourtant yàggul Sonko moo tax mu am ay. MPs député yi am ci Sonko lañ ko jaaré mais tay gis nga leen ñi ngi and ak Macky Sall. pour bu ñuy xex Sonko ñoom ñu ni pat pataral ak di def yi pexé sax pour que xex bi na gëna tar. kon nak bo xolé tamit Khalifa Sall comme socialist parti la bok gis nga moy da Mana dem bokki manam système bi suñu né ban tit. xamul tax système ñoom dajalo wat mhm. c'est-à-dire que soo gisee man ma doon wax Sonko ne ko moytul waa taxaw ci biir Yewwi mais ak ñeneen leader yu bokk Yewwi mais biir Yewwi ñi ma lay wax ne ñoo fa des. ci système bi ci système lañ bokk. mais ci parti socialiste lañ meññee wala PDS. maanaam ñaari parti yooyu ñooy système bi nga dolli ci France ak États-Unis mat na. mat na loolu mooy système bi. ñu ngi ciy dolli rek mooy yeneen kuréel yi. ay kilifa yoo xam ne ci diina la ñuy yëngatu wala ci leneen ak leneen mais daal wala ay jàngalekat lañ wala ay médecin la ñu bokk ci système bi wala ñoo xam ne ay communicateur traditionel lañ ñu tudde leen ñoo xam ne dañuy ñëw di la tagg pour am seen euh, extra extra. Ah, euh, dégg naa kenn mu ne Sonko kenn euh, amul ay. amul ay géwal xam nga loolu yaa ko déggal si. <laughs> Ah, xam nga yow yow nag yow yow xam man ce qui ma ma passionne mooy yow da ngay da ngay suivre politique Sénégal. mais jusqu'au moindre détail xam nga loolu détail la mais détail bu am solo bu am solo parce que euh, wax dëgg yàlla bu taxawee mm-hmm. euh, euh, moom communicateur traditionnel boobu parce que man géwël yi dama leen respecte ndaxte man dama am géwlu judd. Euh, di leen teral. Mm-hmm. te géwal dafa baax ci réew. parce que askan wi bu amul géwal musiba am. Mm-hmm. kon géwal yi dañ leen a war a jox seen cër. man loolu laa d' accord. Mm-hmm. géwal moom ñun Sénégal dañ leen fonk. ñun sax damay wax sax ñun sab région ah, bi sab région bi yëpp dañu fonk géwal parce que géwal. bu nit ñi naree juyoo. wala jafe-jafe am seen diggante moom géwal mooy ñëw wax lu rafet seen diggante. kon géwal ku ama am solo la ci askan wi. waaye nag taxaw naan Ousmane Sonko amul géwal. mu melni ni kon am géwal dafa bok ci li tax ñu jox la rew mi mhm. lool nak musiba la ah. wax deug yalla parce que nak rew duñ ko joxe ci ay am nga géwal ak amo géwal mhm. rew buñ koy jox dañuy koy jox ko mëna yor rew dañ koy jox ko xam du ab satch du ab kat mhm. du kam du am ko xam day ñew euh, di def lo xam dina yakal wa rew mi kon nak man japp na ni euh, Ousmane Sonko li tax xex bi met ci euh ba tax wax deug yalla ñepp di ko Euh, loolu rek la dafa bokkul ci système bi loolu ma tax man ma ne woon Ali euh, Siré Ali Ba ne ko jaaral sa tànk waajuru góor mm-hmm. parce que sa waajuru góor dafa taxaw ab Diouf bëgg mu éliminer ko euh, ki mu gën a ragal muy Ablaye Wade sa waajuru góor taxaw ne ko loolu duma ko def parce que su ma ko defee mën na andi fitna ci réew mi tey nag la gën a mën a andi fitna parce que li ñuy mandaat ni moom ñëpp doon xaar mu def li mu góor defoon mu dugg ci taarix parce que tey mu góor dugg na ci taarix. ñëpp a kontaan ci loolu. bi ma ko waxee ay mbokkam yu bëri wax nañ man rafetlu nañ li nga wax waaye nag moom ñu ngi koy déglu malheureusement nag. unfortunately li ñëpp doon xaar defu ko. mais ca biir koot ba am na as ndaw su am taxawaay bu ñëpp rafetlu. parce que ñu bëri lañ doon xam mooy li mu def risque la. she has taken risk. big risk lañ jël xam nga parce que moom jigéen la. Mm-hmm. Euh, jël euh, ay ay responsabilités am wax ni moom li ñu bëgg a atte d'accord parce que code bi mënul atte loolu parce que bi moo ni lépp lu jëm ci mbirum élection soo koy atte yow Supreme Court doo ko joxaat keneen mu attewaat ko yow yaa koy atteel sa bopp mu jeex mm-hmm. bu ñu bëggee jël kon ni dañ koy atte leneen kon ñoom xam nañ ne li ñu war a atte suñ ko atte dafa baaxul ci nguur gi waaw léegi nag moom mu ni moom loolu du ànd ci ñu koy def xamnañ ni mi ngi jël ay risque wante nak aduna yalla rek mo fi nek man mang koy kagn diko euh, congratulate encore mom euh, mom mom Aïssatou Diallo Ba di congratulate également Ousmane Diagne ba moy prosecutor bi parce que mom tamit bi joge taxaw mm-hmm. man bi may wax sama yaram dafa daw oh, parce que daf di len li ngeen di def ni lan moko fi waral ñun burki dembu njaay ñun fi Karim wad ñun waa Euh, Supreme Court ñoo atte Karim Wade yàggul mu ne noonu ko waxee mu leen yàggul biñ ko defee léegi yàggul barki démb la léegi ñu atte Karim Wade ne ko yow bu ñu lay àtte fii lay yem. kon yemale leen ko fii ba noppi ñu àtte Karim Wade ne ko fa nga bindoo ñoo la mën a àtte mu ne leen euh, euh, Ousmane Sonko mi fa mu bindoo mooy Ziguinchor. kon juge booba moo ko mën a àtte. avocat état bii jàkkaarloog man ni waru ko faa atte te yéen yéen a waxoon ne fa nga bindoo lañ la war a àtte kon nag nee na leen lii état. Sénégal bëgg a def ni Ousmane Sonko nañ ko delloo ay fiche de pare parrainage keroog ci salle bi ñëpp a kontaan yàlla xam na ko ñëpp doon xaar court bi fekk si li nga moom la prosécuteur bi wax ci dëgg comme ni mu amee woon ci euh, prosécuteur Madame Diop Gueye bi mu defoon moom tamit parce que Madame Diop Gueye mooy moo topp ci moom moom Ousmane Diagne mooy jiite prosécuteurs yi nga xam si ñoom ñoo nekk Supreme Court ki topp ci moom moom mooy Euh, ki nga xam ni moom moo def euh, keroog la mooy Marème Marème Diop Guèye donc ñoom prosecuteurs yi xamul tax li ñu def rafetlu nañ ko mm-hmm. mi ngi wane ni ba léegi ñoom xamul tax ñu mën a def loolu ñu def parce que ñoom nguur mun leen tënk ah. ñoom nguur ñoom ñoom askan wi lañ fi nekkal ñoom prosecute naam gis nañ fi ay prosécuteur yoo xam ne ñoom mm-hmm. ñu ngi doon jàppale nguur mais ñoom dañoo wane ni prosécuteur nii la war a mel fi askan wi jëm maanaam Sénégal gépp di xaar dara yow prosécuteur bi soo waxee leneen kon waxaloo askan wi alors que prosécuteur mooy koo xam ne day ñëw ci court bi fa ñuy dogalee du ko fekkee de moom day ñëw di wax li askan wi bëgg mu wax ko parce que moom askan wi la fa nekkal. comme ni assemblée nationale nekkale askan wi ci ni ñuy doxalee koom-koomu réew mi ak looy laws yeeg yooyu ñoom tamit ci euh, ci court yépp boo fa demee ki fa nekk prosécuteur moom askan wi la fa nekkal. loolu tax comme askan wi yëpp dañoo bëggoon ñu wax dëgg. àtte mhm. dëgg. pour bàyyiwaat Ousmane Sonko mu nekk candidat ci élection moo tax moom bi mu yegsee loolu la wax moo tax ñoom def nañ seen seen rôle. maintenant nag li desoon mooy code bi fekk si leen ci loolu ñu sàkku. unfortunately defuñu ko muy gàcce ci ñëpp. et puis mu mu yàqal xam nga ne waxtu bi jeex na fu mu mais li ma bëgg a wax mooy daam moom soo amee foog nga jël rek chance ah mais gis naa ne euh, Pastef ñu ngi lal ay plan plan B plan C plan D plan in case Ousmane bokkul. ñëpp ñu ngi ñaan mu bokk mais am na ñu wax ne par exemple Macky Sall bëgg bëgg a bëgg am mooy mhm. kenn du bokk Pastef mhm. su boobaa gis nañ tam Pastef ñu ngi def ay yeneen gis nañ jante dem na jël fii si parrainage mu ngi mu ne Ousmane wax na ko ne na dem parrain ñu ne ko now it has gotten to a point euh, da ngay dégg waa Pastef ñu ne bañ bañ di nga bëri ak ñun it's either you you you go to election with Ousmane or xaleli Ousmane yi or ku Ousmane support am ñu wax ne loolu mun na indi problème bu mag Sénégal because su first choice bi Ousmane la Ousmane munul ne ñu indi second choice munul ne taat munul ne anybody ko Ousmane ne nañ ko saanil dafay nekk kooku ndax kooku am na qualité boo xam ne mun na jiite réew mu mel Sénégal now it has gotten to the point it's going to be quality ndax kooku am lim lim what it takes to be the leader of a country like Sénégal The Sénégal dafa am taxawaay si sub region bi you need a president who can really be that leader now su demee to the point bi nga xam ne askan bi kii lam dugga nga bañ askan gi dañ koy topp kum lañ joxoon ñu sànni ko mais ku muy tànnanu ndax kooku tam réew mi mun na koo diriger mu nekk danger boo xam ne sénégalais yëpp ak africain bi yëpp war nañ koo bàyyi xel est-ce que loolu tam yéen a ngi ko sóoraale mais loolu tontu bi yomb na hmm. Macky Sall ko dafa yomb uutu Macky ak li fi def. ak njombe yi fi def ak jafe-jafe yi mu andi ak cuune gi mu wane uutu ko yomb na loolu laa la njëkk a tontu bu doon dañoo amoon président bu mag a mag a mag a mag li ngay wax nii doon na mën a nekk. Hmm. wax dëgg yàlla lu nekk jafe-jafe ci bopp nit ñi. waaw bu doon dañu am président boo xam ni dafa ñëw wane xarañte wane démocratie wane que lépp day jaar yoon wutal ndaw ñi xëy. Hmm. ñëpp am liggéey. Hmm. mu defar dëkk bi lépp baax. bu doon loolu am nañ ko. Mhm. boobu lañuy ñuy mhm. mais wutu Macky Sall daa yomb ndax def fi lu baax comme wutu ko yomb na. Oh, Macky Sall mo fi def terre bi de stade bi ak leneen. waaw est-ce que yor réew di defar terre rek la. Ah. ak terre boo xam si bu lu war a jor téeméeri million nga def ñaar téeméeri million est-ce que loolu mooy est-ce que est-ce que loolu mooy mën a defar réew euh, alal joo xam da nga koy lebi du len loo liggéey. Mhm. maanaam tey yow boo amee euh, président boo xam ni. day ñëw ñu ne réew mi lii la man parce que mhm. réew mu nekk dafa am lu mu mën mhm. doole yi tolloowuñ réew mu nekk mhm. dafa am lu mu mën même yow booy liggéey fii boo amee benn employé boo xam ni xam na li nga koy fay par weer nga muy caméra man wala caméra woman xam na li mu mën a am nga koy fay loolu léegi nga toog ba ci yàgg gis mu dem euh, dem jënd oto boo xam si mi ngi jaar vingt millions parce que dafa dem leb ko dem gis kër guy jaay soixante million mu dem leb ko nga ni waa mais kii man li ma koy fay mais munu ci am lii am kon mi ngi dund lu mu àggagul ba fa mu mujj ci kaso bi lay de loolu moo ñu dal maanaam président boo xam ni mhm. dafa dem lebi alal ci fu ko neex ci àdduna bi yaakaar ko ci pétrole bi te pétrole bi wanteer na ko ak gaz beeg yooyu léegi di dund loo xam ne àggaguñ fa loolu amul njariñ xam nga lu am solo. Mhm. mooy xale mënta tëb tëb rek dox. Mhm. day juddu di tëdd ci ruum bi ba mu jàgg mu jóg di toog ba mu jàgg muy raam ba mu jàgg muy jóg taxaw di daanu. Mhm. ba mu jàgg ñu koy teete muy dox ba mu jàgg muy doxal boppam noonu la réew di doxee Macky Sall nag lay cëpp la xam nga lay cëpp. danaan bëri daal yegg fu mu war yegg tëb ay étape mm. maanaam day am fu mu waroon a jaar du fa jaar. lay cëppam googu nag mhm. moo tax ñu jël sunu alal jépp dugal ko ci tàppale mhm. waaw loolu moo tax nag mhm. wuutu Macky Sall jafewul jafewul te ñi nga xam ne ñoo mën a wuutu euh, Macky Sall te nga lim leen parce que ñëpp xam nañ ni ci camp antisystème bi rek la mun a jógee parce que euh, actuellement àdduna mooy doxe noon dafa am système ak antisystème système bi Macky Sall la ak ñim àndal moom ñëpp ci parteem Benno Bokk Yaakaar ña demoon ca jaloog ba waa parti maanaam daal damay wax ne système bi pour mu comme pour seetaan ñoo xam ñan ñooy système bi. waaw political système bi nekk Sénégal ak anti political système bi nga xam ne fee political système bi euh, Macky Sall moo fa nekk nekk seen njiit. Mm. fee Sonko moo fa nekk nekk seen njiit ñi nga xam ñoo bëgg a defaraat réew mi. waa léegi pour nga comprendre. Mm-hmm. Euh, pour nga understand nan lay demee. Mm-hmm. Macky Sall ak képp ku àndoon ak moom ci Benno Bokk Yaakaar nekkoon. socialist party liberal party euh, demoon ci seen waxtaan yooyu ñu doon def assise yi dialogue bi mm-hmm. ñoo ñëpp ak tëdd muy yi ñiy tëdd muy dox mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg lu yomb dañuy tëdd muy dox rek ñu leen di jox ay marché ñu koy gagné ay millions te liggéeyuñ dara ñoom ñëpp wax naa bokk. ak ñi wax naa ñoom ñëpp bi rek lim naa ko sànq ñoom ñëpp ñi nga xam ñoo ci bokk PDS PS ñoom ñëpp ñi nga xam ñoo ci système bi ànd ak Benno Bokk Yaakaar Macky Sall États-Unis France ñoom bi rek. ñi nga xam ne ñoom askanu Sénégal ñoom ñi muy dox seen côté bëgguñu ko. ñoom ñoom nañ doxle rek ñoom te ñoo ñëpp ma la fi limal hmm. nag bariwuñ 17 million de sénégalais yu top ñoom ñëpp ànd ci ginnaaw Ousmane Sonko xam ne li Ousmane Sonko wax moo gën ci ñoom ak benn groupe bu ndaw de leader li ñu sunu avantage mooy dafa am qualité ci li ngay laaj noonu dafa am qualité gis nga Ousmane dama wax ne trois paliers la élection yi jëm nii trois paliers. trois paliers three stages. boo jëlee de euh, ñaari ñaari ñaari ñaari euh, parties yi nga xam ñoom ñooy jàkkaarloo. Mm. mooy bu Sonko ak bu Macky Sall. Mm-hmm. ku ci nekk dafa am three boo jëlee ki ci kaw bu dee ñoom Macky Macky Sall la. Mhm. léegi mais Macky Sall dafa am candidat mu candidat bu mu teg boo xam moom mooy takk ndeeram. Mhm. takk ndeer xam na xaw ma la mooy takk ndeer mooy takk ndeeram mooy mhm. Amadou Ba mooy kenn xamu ko. mooy takk ndeeram. waaw moom moo nekk ci first stage bi moom kenn xamu ko mais moo tax nit ñi Macky Sall sax la ñuy wax moom kenn du ko wax seetlu woo kenn du wax Amadou Ba et puis moom it du waxal boppam de lan la waxagul. damay laaj rek dimbali ma rek xam nga sànq ba léegi yaa ngi fi wax ñu fi wax nangam Khalifa Sall ne nangam diw na waaw wax ma yow fi Amadou Ba wax loo dara Amadou Ba man am réew sax boo koy dénk da nga ku bëgg mais ko am néewul sax bëgg na Amadou Ba léegi waxagul ne bëgg na <laughs> moom waxagul sax ne bëgg na réew <laughs> actually yeah <laughs> man damay laaj rek fan nga gis Amadou Ba ni moom daa bëgg réew fan waa ay photo ay wane ko ay mbooloo extra mais moom du wax ne bëgg na de Amadou Ba du wax ne bëgg na maanaam kenn mu laa wax ne bëgg na kenn waxul ne Amadou Ba su bëggee jël réew mi li fii la jëm lu lépp wax ko waaye sénégalais xanaa buñ buñ falee kooku ñàkk fayda koo xam ne yow bëggul xanaa jigéen sax boo koy may da nga koy ku bëgg mais jigéen kenn du bëggal kenn am réew kenn du ko bëggal kenn yaa koy bëgg mais léegi euh, Amadou Ba kañ la wax ne daa bëgg fan fan la ko waxee nañ ma jox dut am ne bëgg na neen maanaam lépp dañ ko koy defal moo tax ma tudde ko bébé Amadou <laughs> daaw xam nga soo ko amee bébé yaa koy defal lépp xam nga loolu tamit ko bébé Amadou bébé boo ko yoree yaa defal lépp te Amadou ba bébé la parce que moom lépp li muy def dañ ko koy defal lépp lépp lépp lañ koy defal léegi nag bébé Amadou moom néewul fenn bëgg na mhm. léegi nag palier boobu moo fa nekk gën pour le moment parce que Macky Sall j'ai partout que nañ ko surveiller Macky Sall dafa bëgg ñëwaat le syndrome xam man du ma waxant dégg naa la nga wax loolu mais man mais man xoolal du la wax nag gis nga nag samay wax samay wax de ci te lépp lu ma la wax te bu ma tëb rek wax ko. mais passé nañ foofu. de guñ ko xam nga syndrome Côte d'Ivoire. Mm-hmm. oh te tey leen Macky Sall néewul tey tam de carrément da koo wax nag su ngeen seetloo yow léegi ku ne moom bàyyi na nguur gi te fu mu waxee tuddaat ko man damay bàyyi nguur gi xam nga seetlu ngeen ni ta yëpp mi ngi ciy revenir. bu may bàyyi nguur gi di mer. mooy bàyyi bi neexuma. Mm-hmm. kon nag à tout moment lu ne mun na xew Sénégal ñu toog ba caag Macky Sall nday bokkaat. parce que xam na ne bébé Amadou mënut a gagné léegi nag boo jógee bébé Amadou léegi dafa am beneen étape bu ñëw après bébé Amadou mooy Aly Ngouille Ndiaye Birima Mangara euh, Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao moom mooy deuxième niveau bi ñoo ànd de ñoom ñëpp système bi la ñoo ànd de. candidat hmm. système bi ñoo ànd. doo mos a dégg ñeent ñii ma la fi limalaat ni bu deuxième tour amoon dinañ votel candidat wu Sonko wala Sonko déedéet duñ ko def de bu second round amee ñoom seen biir. ki ci rëcc. Mhm. moom la ñuy voteel kon ñoo ànd. ñoo ànd benn système. benn système bi la. nga ñëw nag ci ñetteelu niveau bi. Mhm. mooy third stage bi foofu ngay am di euh, di alliés yoo xam ñoom ñoo demoon ci dialogue bi mooy naa bokk yeeg ay waa PDS ak. Mhm. candidat yu tappalekat yi nekk foofu benn bokk kam ne ay candidat lañ et ñu jóge AFP ak ñoom ñëpp mooy mooy beneen étape bi. ma nekkuñu. nekku biir mais yéen seen seen état bi. falaa jëm ni mu loon falaa jëm waaw falaa jëm man jëm dama lay wax falaa jëm du wax naa la lii nu mu demee. waaw dafa am ci kaw. Euh, bébé Amadou. waaw non dama lay wax. fee ba pare doo ko ñëw fii. ok bébé Amadou. waaw takkandeer. Mhm. léegi ñu ñëw. Euh, ci ñeent ñi ci topp ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak Birima Mangara euh, Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao mu am ñeneen ñu nekkaat seen suuf ñoom ba tey système bi de ba tey candidat système bi lañ mhm. nga am foofu ay ñoom naa bokk ak yooyu mhm. ak waa PDS ak ñooñ ñoom ñooy ñooñu ak ñeneen ñi nga am si ñoo ñëpp ñoo ñooy système waaw ci suuf la bokk non cent ah, Euh, seven percent of the voters mënu ko am non mënu ko am nag nga ñëw ci groupe beneen bi jàkkaarloog ñoom te bëgg soppi réew mi foofu nag Sonko na ci kaw léegi nag bi Sonko nekkee ci kaw xam nga Sonko te li Sonko def moo tax def lee ñoom it de maanaam Sonko muy de Sénégal Sonko koy jiite Sonko moo yore réew mi moo ko yore ci loxoom fu mu bëgg mu jëm fa mu jëm gisoo actualité bi moom rek mooy wax fu mu jëm fi noonu suba am na leen xam nga dama leen waxoon leen lim lal mënuñu ko lalli seetlu wo bés ba nekk mu jël benn affaire teg seetlu woloon bés bu nekk am na lu muy teg bés bu nekk maanaam gis nga fi mu toll nii xam nga tey coow Ayib Daffé la mhm. Ayib Daffé dem na yóbbu na fanweeri million man daanaka mën naa la wax bi ñëw <laughs> après Ayib Daffé am na beneen buy ñëw ah <laughs> ma rek ma ñëw waaw léegi gis nga groupe boobu gis nga groupe boobu <laughs> léegi Sonko moo na ci kaw xam nga ñu ci topp mhm. beneen groupe boo xam si ñoo ñee ñooy tolloo mooy Abbas Fall Birame Souley Eh, El Malick Ndiaye Guy Marius Sagna loolu mooy deuxième étape bi mooy deuxième mooy état bu ñële deuxième bi xam nga oh. fële ñoom Aly Ngouille Ndiaye fa nekkoon fii ñii la wax ñoo fi ne ok candidat lañ toujours ñoom it de mais ñoom it candidat Sonko lañ waaw mais nag ci part la lañ bokk waaw xam nga ñee tamit deuxième niveau bi mhm. deuxième second stage bi ci nguur gi lañ bokk ci ci ci ci APR lañ bokk mais boo ñëwee ci ñetteel bi dañ naan la ñun bokkuñu effect euh, dañu yore seen i political parties bokkuñu bokkuñu APR fii tamit soo jëlee Sonko ba pare mm-hmm. euh, second stage bi ci Sonko lañ bokk ci political party bu Sonko lañ bokk mm. muy Abbas Fall Birame Souley euh, Guy Marius Sagna ak El Malick Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi seen fiche de parrainage mm-hmm. mais ak ak Bassirou Diomaye ñoom ñooy five yi nekk ci suufu Sonko léegi na kenn ci ñoom la Sonko ni na parrainé mm-hmm. ñeneen nañ xaar waaw foofu la Sonko tollaguñ léegi na mu am ñetteelu étape mm. boo xam da nga fay lim mooy alliés alliés yi ok fii am ay alliés. alliés yooyu nga mën ci lim Cheikh Tidiane Dieye. mën ci lim Dame Mbodj. mën ci lim Dianté. Mm-hmm. mën ci lim euh, Habib Sy est ce que leer na. leer yi ñett li li moy wure wi wure xam nga li wure. léegi nag wure wi. Mm-hmm. heure bu nekk lu ne mën naa xew Sénégal. léegi nag Sonko li mu teg. la Macky Sall bëgg a xam te xamu ko. dafa jàpp ni moom moo tax su ma déggee ñu tappalekat naan non Sonko du bokk ku bokk ci Sonko du bokk. mais loolu waxu tàppale la parce que bu ñu naan Sonko du bokk bokk ci Sonko du bokk mooy dañoo jàpp ne ñooñu Pastef lañ bokkoon wala liñ tuddee ex Pastef mais Sonko daa am ñoom bokkuñu ex Pastef hmm. te ba léegi Sonko daa dese li ñuy tuddee parrainage élu parrainage député député yi waa léegi ñooñu ku leen tee bokk finally daam dégg naa nga ne candidat nga euh, dégg naa ci say ay discours nga ne su second round amee Sonko mooy dem ak yow daam foo Amadou Ba Macky Sall jàppale ko Macky Sall yore réew mi 12 years Macky Sall samp Sénégal Macky Sall am système bi am xaalis am everything foo foo foo teg loolu daa ak Sonko second round. waaw léegi xamul ko foofu. Hmm. yàlla xam na li may wax nii. Hmm. Eh, mën na bañ xam politique mën na jàppe ni man samay wax mën ko wax ni nga rétan ci ba pare. wa ma ngi bo ci rétané ba pare bu nopi mais man sondage mo moo xari eh, a nga def eh, nga def nga def <laughs> nga <laughs> step back. nga bo ci rétané ba pare. nga def step back nga xol lima wax. nga xam lima wax lu wóor la. gis nga bu élection jaaré yoon. Hmm. Ousmane Sonko kenn mënu ko téré nek candidat bu dee jaay ñu doolé bu jaay ñu doolé ñepp d'accord nañ hmm. képp kuy kilifa Sénégal ak aduna bi wax nga ko. Hmm. ñëpp ñi nekk ci àdduna bi taxaw nañ ni euh, li xew Sénégal du yoon mhm. Ousmane Sonko dañ ko bëgg a jaay dool nañ ko bàyyi mu nekk candidat kon Ousmane nekk candidat am ñun amuñ ci benn sikki sàkk que day nekk candidat parce que loolu mooy yoon. Mhm. bu ñu defee leneen mooy dañoo bëgg a a jaay doole dañoo bëgg a def hold up électoral te loolu kenn du nangu parce que man nekk candidat du tee ma xam ne Ousmane mhm. Sonko moo doole. mais yéen xam nga dama joxe exemple barsa bi muy am doole parce que j'aime donner des dama dama bëgg di joxe toujours exemple ci football. mais Barcelone bi muy mm. am doole dëgg dëgg dëgg boobu c'était Messi moo amoon mooy rawoon doole ji. Mm. mais dafa amoon ñu nekk suufu Messi ñoo xam sax ñoo ñoo tax sax Messi doon am doole. ay Xavi Iniesta xam naa ni Gambien dañuy seetaan football xam nañ li may wax. Xavi Iniesta Busquets. Mm-hmm. mais ñooñu ñoo ñoom ñoo yore woon doole Messi léegi nag ñoom koo si daan ta euh, jox euh, Mike ne ko léegi yow kan moo gën a taqe. kan moo gën a aay fii ci Barcelone mais dañ naan la Messi mais du am na at yoo xam ne dañ ne Messi waru woon jël ballon d'or bi dañ ko waroon jox euh, dañ ko waroon jox sa mais mais Iniesta boo ko laajee naan la Messi gën a taqe man tamit noonu la mel sàn Sonko moo gën a taqe mais man damaa taqe ah, loolu mooy dëgg mm-hmm. man dama taqe te la koy woon gis nga Ba am na ñu fi def fan yëlee sondage survey survey man defuma ko def xaw ma sax ñu ko def am na ñu def survey yàggul bi ma déclaré sama candi sama sama sama candidat si ma ne man damay damay bokk ci élection bi mais dafa am ñu def survey bi wax sénégalais yi nañu vote ci internet bi mais man euh, bi may am 91 pour cent 91 pour cent Amadou Ba am 9 pour cent <laughs> waaw léegi loolu leeru <laughs> beneen bi beneen bi Amadou Ba mbedd yi ñëmu cee jaar comme man ni ma ko mënee démb dama lay wax démb dama am lu ma doon jënd fekk dama waroon dem am fu ma jaar avant may ñëw Gambia fii man am lu ma doon jënd jaar ci benn market bu siw bu nekk tudd Colobane. Mhm. mais dama dugg ci market bi réccu lu ma fi doon duggee. Amadou Ba ñëw faa teg tànkam. Ah, parce que nit gis nga un euh, euh, leader boo amul boo amul loolu nit ñi bëgg la mais mais ku la bëggul du la woteel. léegi man bi ma yegsee dañ ma wër commerçant yi euh, les traders la ñoom ñëpp ñu wër ma ku nekk ni ma jox ah da ngay gis sax koo xam ne man bi ma ci gën a bi ma gën a laal ci yëpp mooy. ko xamni ne ndeysaan man xool na lemula liyep lal yëpp bariwul donc bariwul mu yëkkati ñenti témèr mu ñëw may ma mu ñëw fekk ma fi ma taxaw man ma dama lay may ñenti témèr dimbali ma rek nga jël ko te may xol limi jaay mu man limi jaay yeb li ci sama poos mëna ko jënd mu yëkkati ñenti témèr ko soxna ci téré mën man ma dimbali ma rek dama la ko ñaan dama bëgg jox la ñenti témèr taxaw photo ak yow ma mané ko ndeysaan li mo met na ne man ma ndax rek bëgguma bëgg yeen ngeen jël réew ndax réew mi soppé ndax li nuy dund bëgg nañ mu jeex te yéen rek lañ ci yaakaar léegi ma jógee foofu xoolal mhm. da ngay romb koo xam day jaay euh, euh, euh, t-shirt mu yëkkati ci t-shirt am jox la ngay gis romb koo xam day jaay serviette ki jaay serviette damaa dàq di ma dàq ba dab ma mhm. comme ki doon dàq Ousmane Sonko di ko jox téeméer yéen a ngi koy fàttaliku loolu ah, ko doon dàq di ko jox añ bi yéen a ngi koy fàttaliku ci élection deux mille vingt et yi xale di ndaw si togg añam mhm. ko Touba fekk booba mi ngi waaj ku dugg Touba mu togg añam ndeke moom li mu ci bëgg rek mooy jox Ousmane Sonko boolu añ bi di ko topp di topp oto bi ba tàllal bool bi Ousmane Sonko Ousmane xàll sécurité bi ñu jox ko bool bi ñu jox ko bool mu teg ci oto xam nga loolu euh, bu fa àggee mm-hmm. da ngay xam ne kon loolu mooy li nit ñi bëgg mm-hmm. Mm-hmm. Amadou Ba man ak moom du mat man ak moom du gaynam man ak moom suñ ci desee dama koy taxañ xam nga taxañ <laughs> taxañ maa moom rek bu ñu bokkoon cib candidat euh, cib élection boo am Sonko bokkul kenn bokkul man ak Amadou Ba kese bu bala moom balaa mi dee jot eh, élection yi waaw kon nag loolu bu ma koy wax am fu ma ko teg kon nag comme beneen candidat bu ma ëpp doole gisuma ko fi sonko rek la fi sonko rek fi am doole dama lay wax boo bëggee dégg-dégg sax wax ji tëju élection yi ñu jëm sonko rek am doole benn candidat doo nga fi am doole muy sonko keneen kun fi wax dan lay jay léegi nag man comme ñoonu ñuy wax noonu di leen jay kenn tanewuma ci kenn ci ñoom tanewuma ci moo tax bu élection yi jaaroon yoon man ak sonko parce que Ah. sonkoy raw mais dama la bu sonko rawee ñeneen ñi mënuñu maa raw <laughs> loolu laa bëgg a wax <laughs> léegi nag bu ñu demee deuxième tour sonkoy gagné de ah, mais damay dem Ziguinchor xamal may dem <laughs> ne ma naan cëpp Ziguinchor gars yi ni daam mbooj nag cuuc xamul lekkam wala ma ni cëpp Ziguinchor jaxase carte gi teg samay podium ni damay damay meeting xoolal bu ko defee sonko reetaan ay reetaanam du ma sax ñëw campagne <laughs> mais dafa laay nekk di campagne sama campagne xam nga <laughs> donc parce que loolu mooy démocratie mais dama la ko wax ne la la ma ca mm-hmm. mën am kus néew mm-hmm. man ak Sonko ñeneen ñi mënuñu ko cee am parce man dama lay wax tey su ma demoon deuxième tour jàppal li ma lay wax nii mm-hmm. mën naa ko wax nga reetaan ci suñ demoon deuxième tour man ak Sonko dina am Pastef yooyu bëri yoo xam mën nañu voter ah, est-ce que dégg nga wax ah, xam nga boobaa dañuy xam ne gagné nañ ah, ndaxte ku gagné ci ñoom ñaar ñooyam mooy gagné nag mooy gagné mooy gagné mais waa parce que bi bëri man la a votel <laughs> daam kontaan nañ trop trop trop ah gars yi Gambien yi kontaan nañ ah Moussa Seydi mu ne ma Fatou please tell Dame Mbodj I love him so much Gambien bugg nañ Sénégalais bugg nañ eh, jërëjëf sa taxawaay ak li def ban message ngay jox Gambien in English Gambien people ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan eh. lan nga leen a wax Okay, I would like just to tell them that I'm so happy to be here in the Gambia. Yeah. Uh, it's my fourth visit here. Uh, me, I believe that Senegal and uh, the Gambia, it's the same country. Yeah. We are the same pe people, we are the same population. Mm. And that we have to stay together, to stick together, and uh, to work together, uh, to get married together mm -hmm. in order to develop our, our, our, our countries because we are Africans. Me, I'm African. I know that most Gambian people are African people because they, they be, believe in Pan Africanism. Mm -hmm. That's why what is happening in Senegal interests them. They are not Senegalese people in terms of nationality, yeah. but they're Senegalese people because they are Africans. And Senegal and the Gambia, they used to be the same country. It's the Europeans who in Berlin divided the country in two. That's why we have Gambia here and Senegal there. But we, the populations, we believe that we are the same people. And that's why I want that these good relationships that we have between Senegalese people and Gambian people, that we safeguard, that we stay together, and that we work to have development in our area so that we have we choose good presidents we don't have we, we shouldn't make mistakes of choosing presidents who are not able to put us together mm -hmm. and to mm-hmm. develop our country so that we reduce poverty in our different countries, that we, uh, we develop uh, our economic sectors, that we have strong democracy in our different countries, so that um, we uh, Africans will no longer go to migrate to European countries. It's those people are going to migrate here and that we'll have uh, rules, strict rules to see who is going to enter our countries and who is not going to enter. And this is my dream. My dream, and this is the dream of Usman Sonko, who is a Pan Africanist leader who wants Africa to be developed. Mm -hmm. And that's why we, we are very happy to know mm -hmm. that many Gambian people, they support Sonko. And they support leaders like Sonko because Gambian people, they are Pan-Africanists, they believe in Africa, and we want Africa to be one of the most developed continent in the world thank you very much Dame content kontaan nañ bu baax a baax a baax di gërëm Yacine mi nga xam ne moo faciliter interview bi torop Gambien yu bari kontaan nañ pour dégg ci yow maa ngi lire commentaire yi mais Gambien yi moom macha people are so amazed but man personally I'm a big fan of yours Thank you. and I I am a big fan of Maimouna Bousso and the entire perspective I will tell her I am a big fan <laughs> of that woman after everything she's going through thank you she's standing strong by by President yeah and I was very happy to share this emission with mm, you. It Thank was you. a nice. Uh, you know, I spent very, I don't know how much it took because it seemed that it was long. It's almost two hours. I'm thinking it's all, <laughs> yeah, almost but, but, two hours. But right? people say that when you invite them, but even the journalists in Senegal, that's what they say. Yeah. They say that it's not easy to have him yeah. So once you have done take uh, advantage. Uh, you take advantage yes. of it and you take the most time you can. Yeah. And uh, I'm happy also for you. Yeah. And uh, I know that also, I, I, guess the people were happy to watch. Yes. And uh, yeah, let's say next time. I'll see you in <laughs> Senegal. you. We will be in Senegal for the presidential election. Yeah, yeah. And we wish you all the best. Yeah. And let's let's hope that Sonko will be the next, next president, president of, Senegal. of Senegal. Inshallah. Thank you. Focus. <laughs> Thank okay. you very much. And for those watching, it's uh, another interview with Dumbo, Senegalese political politician, of course, uh, head of the Teachers Union in Senegal. Until we come your way next week, Thursday, good night to you all. See you again. Bye bye. Residency Estate is a gated community located in Olyundum, proudly developed by Swami India. Perfect for all looking for a quiet life with luxury amenities within an enclosed setting. When talking about the benefits of living in a gated community, safety and security is top on the list. allow extra privacy, take away the hustle of unwelcome solicitors, and create a safe haven for children to play in a trusted environment without traffic or speedy vehicles. A great sense of community develops through the meeting at a controlled communal leisure facilities, offering an integrated lifestyle. A green environment and well-managed communal areas are keys to higher home standards, elevated quality of life, and better property value should you consider home reinvestment in the future. Added to all is the location, just next to the airport and reconstructed main road, yet tucked in the tranquility of nature. Our purpose is one, your satisfaction. Contact us. Let us help you build your dream home in the Gambia. yiriwa men na taram luto nga GIA cargo complex parendile proka julaya sone yandi ka ni funti bundana do ko sembentu ya Banjul International Airport oto men si nyafa si moluma mel ka fengolu ki bantala bankolu kang anin julandingolu fana foysi sulan na cargo doko ko le bang katu masingolu ben bulule ka fo ye forklifts mel ka selendiro ni jindiro ke bagasolu la mel be funti kang waranto ka dunnan na waya houseolu kono nga dinkira ngolu fana sotole ifula la fano mu metar kemeleti karo bela adun isi cargo bagasolu tanole men sita fo ton tan woro ila sumaya fana futata le to men ka fen maabo mabono fo e kana tinya fo sene fengol lombang domori fengolu waranto jata kendeya nin bori ma fengolu kago bagasolu la taradula kendo asulata ni laban korosir langolu lela na double view extra korosir la a aka kago bagaso kono kono jubele komi kago do ko sartolu ya landi nyamen nyin double view extra amu jama ni laban rapid ti men ka karafula korosiro keno kago sifa bela waati kiliŋo kono to na dokulalo imu ayata karandiŋol leti miliyela la dokuwo no e faramansata kago dokuwo na tamandiri ñaato na dokuwo la beteya woyen futandi ra3 makamo le to men sa tinna fo nse kago bagasolu kino le kata uk aniŋ eu bankolu kan gia ka hakkili tenkuŋo dilan na dokuwo to ite ñina la men Every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best. and to see possibilities on the horizon. To make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy. That daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority, we go beyond daily.